وأحمدك ولا زناه إلى عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك القتام لظاهر المرسلين وبعد mbokk ñi sétan te di ñi sétané fi ci sen télévision des tv ci sen émission bi ñi tuddé ëttub l'islam délu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci benen tombe waxtaan ak yeneeni gan di len ndokkeel ci aljuma ji di len ci ziyara di len balu aq di len bal aq di amad yene bu sel pour and ak yéen ci jotay bi am ngeen ne ñing len doon dig na leen bu ñu maye fe fekkeek tal lañ andat ak yéen ci benen tombe waxtaan ak yeneen gan yalla may nañu fekke nañ ko tal nañ ko ñing koy sant ci lolu hatta yarda tay suñu tombe waxtaan moy al ijasa sayfiya lil abnahi bayna diya ul awqat wa taqiqul injasat manam wakansi. pour doom yi ñaari mbir moo ci mën am benn doom yi taxawee ci perte de temps wala ñi taxaw ci pour exploiter ko mu nekk njariñ ñu bëggoon a waxtaanee loolu nag ñu tànn ay boroom xam-xam ay gëstukat di ay imaam doon ay yarkat pour ñu jéem a gindi jaamu yàlla yi lu ci yàlla leer leeralee ci seen làmmiñ ki jiitu ci ñooñu mooy suñu xarit suñu doomu ndey maam Ngor Gaye moom ngeen jàkkaarloo ni mu bokk ci ustaas yi waxtaanee fii ci rajo Dunia. ñu woo ko mu comp ci jotam wuy si ñi yegsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coonee déplacement bi. toftal ci ba tey eh, suñu xarit suñu doomu ndey di suñu wëlëre imaam Cheikh Diop muy imaam fële ca Kër Mbay yaakaar naa plateau bi moom miin na ko. Eh, ñu woo ko mu comp ci jotam yegsi na wuy si nañu ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiix di ko masawu ci coonee déplacement bi. doon ci toftalit eh, suñuy xarit suñu doomu ndey tafsir Moussa Gassama dëkk fële ca Kër ma daaro jombut ni dana ma wax ne Kër Madaro fa sori mais mi ngi ci réew mi ngi ci dëkk bi fi ne nii ataaya ko tardeel parce que moom naan katu ataaya la mais léegi tey mu yegg si incha allah eh, waxtaan wi kon eh, nii lañ ko bëgg a tëralee tomb bu njëkk bi mooy nan la ñuy passé vacances bi vacances yi nan lañ koy passé parce que eh, jombut ni ni oustaz bi tey jàpp ne la feetee vacances mën na ko bañ a doon ni Serigne Cissé japp man nako baña don kon buñ togué ak borom xam-xam yi dañ leen laaj nan lañuy mëna def ba passé vacances yi mu dëppoog la gën lu tomb bi moy bandrol lañuy xaar ci wajuri ñi planifier doom yi vacances yi bañ am ci ak njariñ bi xaddi nasar ñu bañ leena boyal rek ñettelu point bi lan mo ci nekk njariñ ak lu ci nekk lortef ci fête gi ñu feetoo ci vacances yi ak nan lañuy mëna def ba moytul ndaw ñi heure yi nga xam ne heure yi widd la ñu exploité ko ba widd du leen ci fekk ndax nit bu libéré rek def lu war te ah. ñeenteel bi li ñuy tuddee euh, ay vacances citoyennes wala vacances yoo xam ne colonie lañ koy tuddee nga xam ne parfois dañ koy organiser mën nga ko organiser ci biir dakaar mën nga ko dem ci régions yi mën nga génn réew mi ànd kook say doom wala nga ànd kook ñeneen wala benn groupe jël leen yóbbu leen. vacances yooyu bu ñu ko defee ci colonie yooyu nan lañu koy mën a exploiter ba mu jur ay meññet yoo xam ne danañ ci yar doom yi lii lañ bëgg a waxtaani tey eh, oustaz Mame Gor Gueye gannaaw bu ñu la duyoo baloo la àq baal la àq eh, di la masawu ci coonoy déplacement bi di ñaan jëf ji yàlla bu mu neen yàlla ko yàlla def fi misaani asenaatika eh, ñu jox la laaj bu njëkk bi nan la ñuy mën a feetoo vacances yi nuñ koy feetoo aoudu billahi min alcheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ginnaaw bi ñu doon yoo Cheikh Ahmed Tidiane te di rafetlu jataay bi ak itam woo gi nga ñu woo boole ñu ci participation bi nga xam ne dafay mbir mu am solo dox itam ci jamono muy tolluwaayu jamonoom du nuyu itam Oustaz Diop di imam jóge itam fële ca Kër Mbay Fall di nuyu itam waa réew mi yëpp nga xam ne ñu ngi seetaan di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla def ci suñuy làmmiñ li ciy génn lépp di njariñ te suñu borom nangul ko ñu bokk ko ak jullit ñëpp waaye nag tomb bu njëkk boobu nga laaj nga xam ni dafay dellu ci li ñuy tuddee vacances yi hmm. muy injaazaatu sayfiya bu la neexee tamit lont la nga xam ne dafay nekk bër boo xam ne xale yi dañ koy bër ab diir ci lu tollook ñetti weer ba lu ko manqué tuuti ba buy ëpp itam du bëri loolu itam wàllu ndaw ñi daf ci am rôle yu mag yoo xam ne itam kilifa yi wala wayjur yi ba ci nguur yi kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité boo xam ne suñu borom gàll na la ko pour li nga xam ne lépp du dara rek lu may couvrir li nga xam ni moom mooy solos doxalinu ndaw ndax ndaw dafa am solo solo goo xam ni dafay nuroog gàncax ci misaal boo ko xooloon comme ni gàncax di mel ci buy soog a génn loolu mën nga ni boo ko toppee mooy tolluwaayu ndaw jamono bii nga xam ne ci la nekk muy nawet nga xam ni yàlla na ko yàlla eggale jàmm mboolem ku nekk ci tool yi gis nga loolu ni nga xam ni euh, noonu la ñax yi di saxe ak gàncax gi ni muy laaj orientation boo xam ni dafay laaj gunge ko di dindi ñax yi ci bokkul ba mu war a mën a am li nga xam ni mooy li jubluwaayam bu wér boo ko dëppalee nag li nga xam ne mooy njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag mooy li nga xam ni moom mooy li gën a mën a sàmm ndaw ndax mboolem yonent yi yàlla yónni leen ci seeni jamono ay ndaw itam bokkoon ci ñi leen dimbali kon ndaw day lu société soxla suñu borom soxla ko ñii def naka su lu noonu itam soxla ko kon mbir la moo xam ne mu ñëpp soxla di ko xëccoo la kon war nañuy xool yan yoon la ñuy war a mën a jaarale ndaw ñi ba colonie des vacance yi ñu nekk yu baree bari duñ ci dugg comme yi nga xam ne tey àdduna yëpp ñu ngi koy teg bët nga xam ni lu baree bari tey boo xoolee ni ñuy def ba faatu ci géej gi ak yeneen yoo xam tam ay accident la yoo xam ni mu ngi xew ci yeneen i bërëb yoo xam ni dara indiwu ko lu may feetu vacances bi nga xam ne ci la ñu nekk bu ko fe ndaw ñi nag dellu gi ñuy dellu ci kër yi kon bu loolu am na responsabilité bu rëy ak itam vigilance bu mat sëkk boo xam ne waajur yi war nañ ci taxaw mboole imaam itam seen kàddu war na ci jóg naka ulama u itam noonu ànd ak itam nag ñi seen kàddu jot ci nguur itam ñu leen di xelal yoon yi nga xam ne itam bu ñu ko tëralee danañ gën a mën a jàppale li nga xam ne mooy population bi ci loolu ndax boo gisee yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci benn xadis buxaari rotal ko mu wax ni al zamaanu wa yanqusu al amalu wa yulqa suxa wa yaksaru al haraj nga xam ne boo xoolee jamono ni mu ko résumé wane ni jamono dafa jege dafa gàtt dafa nekk itam mbir moo xam ni dafa résumé wu ci ay étapes yu bari yoo xam ne lu bari mën na ci xew boo xoolee jëf itam dafay gën di néew rawatina jamono yu mujj yi nga xam ni itam nay dafay nekk lu yaatu ànd ak itam faatu gën di bari nga xam lu koy waral mooy xeeti accident yeeg phénomène yi sosu di xew dafay nekk loo xam ni dafay bari rawatina bu dee ci wàllu xale nga xam ne dafa néew doole néew kattan bu boobaa nag li nga xam ne ñoom ñooy seen wéyjur nag ñoom ñoo war a taxaw taxawaay yi nga xam ni mooy taxawaay yi yonent yi daan taxaw bi ci jiitu rek mën nga ko jël ci xissa boo xam ne ci alquran muy sóoratu luqman nga xam ni alquran di ko nettali ndax ni alquran composé wu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jële ko ci boroomam mooy dafa composé wu ci ay kisas yoo xam ne dafay waaraate ak di nettali ni mu amee itam loo xam ne ay dëxal la di wax daki waxiit noonu itam ngay koy fekke ci luqmaan mu tënk ci bi muy tënk di yedd doom ji suñ borom di ko wax ci alquran mu boole fa juróom-ñaari point yoo xam ne benn bu ci nekk boo ko résumé ndaw la doon waxal ndax ci doomam la nekkoon di ko ko waar nga gis kon alquran li tax mu nettali loolu muy li Alxuraan di wax iz qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'izuhu ila axir boo xoolee bi ci jëkk ci tënk rek li ko Luqmaan jëkk wax doomam bi mu koy waar ni ndax waar bi du dara lu may éducation muy kay tey li ñuy tuddee éducation nga xam ne tey mooy mbirum l'école éducation boobu du dara lu may tarbiya tarbiya boobu du dara lu may yar nit ki fexe ba mu xam ay responsabilité am ci jamono bi mu nekk ndaw bi Luqmaan jëkkee ak moom boo ko xoolee shirk la ko jëkk a tere muy lii di bokkaale nga xam ni kon wax ko ba pare faram-fàcceel ko wan ko ni ko danger yi nekk ci bokkaale yàlla nga xam ni bokkaale yàlla boo gisee ñu koy jëkkee ci doomu aadama rawatina ndaw dañu bëgg mu màggaale ko ndax mooy kaaraange gi gën a rëy ci moom ci gën a mën a sàmm nit pour bu ëllëgee mu bañ a tàbbi ci ay danger loolu boo xoolee sirk ku ko bàyyi loolu tawxiid lay tudd mooy xam sa borom bi nga xam ni moom mooy xam yàlla boo xoolee loolu bi ci Luqmaan pare nga xam ne détaillé na ko wàllu sirk ko ni ko tooñ la bu rëy yow mii doom kon sama doom yow mii xale kaay nga moytandiku loolu ndax li tax alquran indi ko du luqmaan kese moo koy jariñoo waaye ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yëpp lay waxal bi mu paree ci loolu mu tàbbeeg moom ci ñaareelu point bi ci li nga xam ne mooy waaliday muy ay wayjur wan ko ne ko wayjur itam koo war a jox cër la koo war a toppatoo nemmi ko digg ay ndigalam la ba pare nag indil ko nag li nga xam ne moom moo làmb wéyjur ci ginnaaw bu ñu màggetee ak laata muy màgget coono ya mu ci yow mu fàttaliku ko ci jamono ak tiis yi nga xam ne defoon na ko ngir yow sacrifié bi mu sacrifié woon boppam ci lépp ak àddinaam di dox dépense di la yar di la jàngal ngénte la di toppatoo say jamono ba nga agsi fi nga agsi mu ne ko kooku itam war nga màggaale ni ki la taxawu taxawaay bi meloon ba tey nga mat li nga doon yow kooku waroo ko fàtt nga gis Luqmaan itam bi mu jógee ci loolu mu indi li nga xam ne tey képp kuy gone wala ngay ndaw booy dëkka a dugg àddina moom ngay jëkk a gis mooy li sa xel di jëkk a nekk mooy wàllu wërsëg nga xam ne risque wërsëg nga xam ne mooy man dara tey li nga xam ne tey moo xew ci jamono nga xam ne xale yëpp tey li ñu bëgg mooy koo gis danaan dama bëgg a tekki teral samay wéyjur teral sama yaay bëgg a mel nii bëgg a mel naa ñi la romb itam nga gis ñu am teraanga yu mel nga mébét ëllëg nga mel ni ñoom loolu itam Luqmaan tamit yee ci doom ji wan ko ne tamit loolu nga bëgg noonu muy wërsëg ndax ku sa xel màcc ñoon nga commencé mesure ci foofu ngay daw dugg ndax da ngay commencé bëgg a samp kër Luqmaan itam xamal ko ni ko wërsëg boobu ngay gis nag kaay ma yele ci mooy ni mbirum wërsëg nag mbir la moo xam ne ci programme suñu borom yi la bokk nit nag fàggu mooy li ko war ndax mu wan ko ni ko nag bu nekkoon ci montagne yi gën a sori ca suufu doj wa ci biiri biir itam bis boo ci waree jot suñu borom dana ko indi ba teg ko ci say loxo pour wan ko ni ko kon bu boobaa itam bis boo màggee ba sam xel ñor itam nga dem ba war a sàkku wërsëg na nga nekk nit koo xam ne itam ni ngay ute wërsëg na nga ko rafetal bañ a dugg ci caaxaan yi ak jaay drogue ak yi nga xam ne tey mooy alak doomu aadama yi ak mboole mbir yu ko nuru ak li nga xam ne gotti sa société mu ne ko lool itam nanga nga ko moytu ndax wërsëg nag dafa am programme bu muy jaar loolu itam war nga ko màggaale bi mu paree ci loolu nag mu dugal ko ci diggante nag julli ak koor ni ko nag war nga taxawal julli boo amee alal nga natt azaka wan ko ni ko ibaadaati nag loolu boo nekkee di mag di itam nag war nga ko boole ci sa programme nga xam ne mooy li nga xam ne danga koy boole ci sa dund mu ni ko nag digle lu baax itam ak tere ak mbon itam loolu itam war na la yow mi nga xam ne yow yaay sama doom ndax itam digle lu baax tere lu bon dafa nekk ci société loo xam ne dafay defar penc ndax bu ñu ko bàyyee rek mboole musiba yi ngay xew tey ci lay xew ndax mooy bunt yi nga xam ne moo mën a tëj ñaawteef ci mag ak gone waaye mooy buntu bi nga xam ne bu ubbi ko itam mooy li nga xam ne mën a indi acharnement indi li nga xam ne mooy désordre ci li nga xam ne mooy ndaw ak li nga xam ne mooy mag mu tëjee ko nag juróom-ñaareelu point bi nga xam ne nag ci la ko indil nag li nga xam ne moom mooy société nga xam ne tey mooy li jamono bi di jooy muy suufeeg jikko yi muy lan muy xoslu muamalat muy rafetu jëflante nag ci la ko indil nag ne ko nag bis boo demee ba nga xam ne itam jëm nga mag lii itam bokk na ci li nga xam ne yow da nga ko war a màggali yóbbaale ko mu ne ko tam si fil ardi maraha bul di dox ci suuf si nekk kuy rëy rëy lu di ségare di puukare muy li nga xam te moo gaar suñu ndaw ñi tey muy xale yoo xam ne bu ñuy dox <laughs> dañuy cëpp-cëpp doxal di wengal seen doxal suñu seen i tuwéy di dox doxin mu pant boo xam ne itam kenn xamul lu muy doon loolu itam mu àgg ci ak moom jërëjëf euh, imam danañ del danañ del si ci yow dañu euh, bañ point bu njëkk bi jël temps bi yëpp te am na yeneen tomb mais bi kulli sara bu fekkee dégg nañ la mooy feeñal nga ne eh, vacances yi responsabilité mustarak la responsabilité partagée la diggante waajur yi ak doom yi borom xam-xam yi ak ñi ngànk réew mi ak imaam yi kenn ku ci ne def ci am cër bu la ci war pour nga jox nit ñi ay tawjiyaat ay orientation ñu xam ne nit ki dafa am lu war a def ak lu warta def am fu ñu koy séentu fekk ko fa am fu ñu ko séentu dooruñ ko fa fekk nga joxe ci eh, yontu yàlla Luqmaan ba muy waar doom ja waar ba la nga ci jublu mooy ba mu koy yar wala fi dañuy wax ne ku yarut ku yarut sa doom yore ko boo ko yaree nag mu doon doom yi ñëpp man fu mu dem man fa nekk mu mel ni kon yar gi mooy mooy tuloo doomu aadama bi xale bi bu génnee sa kërit ci lu jaaru lay tegu ba heure ñib si jotee mu ñib buñ ko yarul nag mën na kay génn nga bañ koo gis ba ndog fekk ko ca comme li xew te yàlla nañ ci yàlla musal weñal nga ne da accident mel noonu di xew ci géej gi eh, jombut ci loolu lay dellu mais feeñal nga ne eh, luqmaan dénk na doom ji ba ca jëkk moytuloo ko bokkaale yàlla eh, feeñal ko it na ko wërsëg baax na gaa mais yëgut fi ko nit ñu teg nga xam ne dañ ko teg foo xam ne fi ne dañ koy jaamu eh, bu fekkee yàlla dafa xomp sa wërsëg sax dañu jàpp ne tekki woo dara boo magoon it yaay doon ndaw boo ndawee te sa wërsëg gën a mag yaay jiite yooyu yëpp mu wax ko ne ko amul solo jaru tamit dugg ci tukkim aventure bu ko yàlla defee ci géej gi mu doon sa wërsëg mën ngaa tëdd indil la ko mu mel ni daal dénk na ko ci yu bëri yoo xam ne su ko ndaw ñu déggee waajur yi dégg ko danañu musal toskare njaboot tey eh, imam Cheikh eh, ñu dikk yow ci eh, kayfiyatu qadaa'il adl sayfiya nan la ñuy feetoo vacances yi cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam maa ngi nuyu di nuyu techniciens yeeg kër gi ci gàttal mm. ak réew mi àddina juróom-ñaar ñu ngi leen di nuyu loxo xol ak sunu mbokk mu baax mi yal na fi yàgg daje masha allah suis wax Cheikh nak te ka bi rafet na ma sha allah. <laughs> tudé na la ko. xam nga président wala mel non président mu ci ñuko gis parce que ah, sama loxo fofu euh, ma sha allah. <laughs> bi wax nga lu am solo xolal dama sax bi ma wowe hmm. mané pourquoi proposer le président d'organiser ay rencontres yo par vacances avec lay am ñu invité ci ay borom xam-xam. Hmm. imam mu dans le palais. parce que dana ko dimbali mu récupérer ay système bu efficace la maanaam président organise dans la pare maanaam cérémonie boo xam ne vacances rek lay am trois mois yi région bu nañu jël fa ñetti ilimaan ñetti borom xam-xam yaa ngi may dégg tas ko rek ñu ñëw mu yor leen nag ñu def fii ñetti weer yépp di génne xam-xam génne tarbiya génne taw ju maanaam loolu dana influencer xale yi ba beneen beneen gisit am man loolu dama koy proposer waale ñoom ñu xalaat parce que ñu itam am nañu ci réew mi nañ bokk am suñu xalaat mm-hmm, mm-hmm. mu nekk daal benn xew-xew boo xam national lay dem. aussi day nekk par vacance. imam Cheikh dañ wax ne al ijaza as-sayfiya ibara an fursatin naxsulu alayha xilal alxayaati li muraajaati anfusina wa tasarrufatina wa masuliyatina alfardiya wal ijtimaaiya loolu mooy al ijaza sayfiya loolu mooy lan borom xam-xam ne dañu wax ni maanaam occasion la boo xam ne ça te permettre nga réviser d'abord sa bopp yow dalee sa bopp waaw sa bopp ah, man départ départ ci xale yi. ñun problème lañu deba déjà ku ci nekk sa bopp yaay kan ci loo nekk noonu la wala du noonu. ni ngay doxalee tegu na ci raay bi bala ngaa caate kenn. parce que kii kii kii kii jubbanti day jubba pare. faqru shay laa yu'ti ci lu wér ci lu wér loolu wér la donc liru raajaa fiiha anfusana wa tasarrufatina wa masuliyatina maanaam ñu revoir réviser suñu responsabilité. comme individuel, comme collective ku ci nek am nga ay bop ku nga lu société bi xaar nga vous ko ca ci société bi ku ci ci société nga jappalé ko ca lola kon nak euh, Cheikh euh, bu nu waté ci organisation bi nga xamné mo xew sunu biir nga euh, influence yu bari yu ci am fi amna amna vacance mooy dem ca géej ga vacance loolu lay firi am na gone yoo xam ne mënoo fexe ba duñ gëm loolu li ñuy jàpp mooy vacance mooy dem ca géej ga def nu la neex mel nu la neex def nu la neex mel nu la neex am ñu ko jàppee noonu ñoo xam ne mënoo fexe ba duñ gëm ni trois mois de vacances yi maanaam laazim alayhim wa fardun alayhim waajib alayhim ñu dem ci géej ga dafa yaramu neen foo def seen i caaxaan mënoo génne gëm loolu seen bopp dañ ko gëm amna na koo xam ne vacance am mooy dagg billet dem France toog ci ab hotel di noos ba ñetti weer ji mën na ko génn ci boppam parce que loolu la gëm parce que loolu ko système gëm loo et cetera boko ko toppee da nga gis le ma wax ni maanaam compréhension vacance dafa des ni ñu diggee vacance des lan moy vacance ci olof moy, lo talu woon dund gi may la jamono boko ko ci lu baax xale bi talu woon dem ca daara ja na ca dem waa ji talu woon doxu mbokk ndax xat na trop na profité bala ñetti weer yi jeex mu seeti nijaay yi seeti tante yi dem ci dëj yi dem ci ngént yi ndax daaw ko def ndax liggéey moo ko koon maanaam dund gi moo la ko jox muy occasion boo war a exploité pour am ci loo amul woon ndax da nga xatoon daaw am temps waxtaan sa njaboot daf daf tee débat wut mais wut ataay ñu waxtaan xale yi wër la ngay waxtaan ci biir kër gi daaw ko def parce que amu woon temps vacances ñëw am nga temps amoo woon temps jàng majalis comme suñ compagnie gi am na téere sàngam boo dese woon jàngaloo ko ndax xat nga ci ci at année bi dama nga jàng ko balaa ñetti weere jeex loolu suñ responsabilité la am na koo xam ne mënugul dawal oto na ko jàng ci biir vacances yi am na koo xam ne war na xam-xamut man am na lu ma xam ci téyeer loo xam ne ci vacances laa ko jàng maanaam occasion la occasion la nga xam ci technique dara nga xam ci xam-xam bu la wara a mën jëriñ mais occasion la ci nga xam sa borom cheikh xam-xam yëpp ci fite kaw mooy almu tawxid mooy maa yuqarribul abdu ila rabbi lépp luy jàpp na sa jege borom profité jàng ko ci vacances yi farata la mais malheureusement am na loolu laa léegi nag mooy état bi dafa des ñu jàppale ci organisation wu nu mu colonie de vacances bi muy def colonie de vacances du profité xale yi pour ñu fawe de feriwul loolu pour ñu sañ def caay-caay gu ñu sañul woon ci biir année scolaire bi du loolu de pour ñu jàng fecc ak way loolu colonie mpo la du colonie de vacances bokku ci bokku ci maanaam doomu aadama dundam sànq ci waxtu moo ci xajul waxtu xiimatul waxtu ñun ñoo ko desee xam waxtu loo loo fi baax baaxle ci waxtu nga ko baax baaxle loo fi yàqu yaa ngi koy ñàkkee ci waxtu temps lañu xamul

yow départ bi yaa ngi ko dalee ci président de la république wane ne ay doléance la yëkkati teg ci loxoom jombut bu ko déggut am na ñu ko koy déggal mhm. ñu ñaanit ñi koy dégg nañ ko ko jotale parce que moom mënta nekk fenn mais fu nekk am na ko ko fa nekkal mhm. ña ko fa nekkal nag min baabil amaana ñu di ko jotale li ñuy wax mhm. eh, wane nga ne doon nga doon nga proposé mu boole ci ay programme am vacances yi di ci def ay jotaay yoo xam ne day tànn ay borom xam-xam ak ñoo xam ne seen xel nàcc na jëm ci luñ mel ak lenn ci ay doomi réew mi jël ko ci région yépp di leen dajale ci pale bi ñu ciy joxe ay cours ak leçon ba vacances yi jeex jomb dana am lum jur eh, yal na ko dégg yàlla na bañ dugg ci noppi tax mm-hmm. nga wax ne eh, vacances nag buñ ko waxee mooy exploiter diir bi nga xam ne am na loo talutoon ci biir année scolaire bi mu mel ni bi année scolaire bi teru ñun ñëpp dañoo tënku waajur yi tënku nañ ci nu ñuy def ba seen doom yi jàng nu ñuy def ba jàll ci année scolaire boobu tënku nañ ci nu ñuy def ba réglé bu ñu xëyee yee leen toppatoo leen. Oh. ndey yi waxal luñ mel ci ñoom jàngalekat yi waxal luñ mel ci ñoom dañuy teel a xëy pour dem recevoir xale yi dugal ci seen bopp yi dara loolu kenn nekk kenn ku nekk nekk sa occupation. ñu dem ba mel ni loola lu ñuy waroon la wàcc nañu nisbiyan am na lu ci jot wàcc. Oh. nga ne diir bi mu ñu wàccee na te dellu siyaatuñ ci lépp du ñu waraat dafa am lu ñu war ci ñaari weer yooyu wala ñetti weer yooyu ñu exploité ko ci kenn ku ne la nga toon nga tal ko ci mm-hmm. ñu ci jokkutoon bokk yi ñu jokk ko ci ñu ci amoon ay cours yu ñu bëgg def ñu dem defi ko xattaa ñu bëgg a jàngi oto ñi nga xam ne am nañu ay ustaas yoo xam ne ustaasu cours yi lañ ci koñ bi war a toog di jàngale ñu dem seeti leen doolee ko ci seen wàllu diine même jigéen ñi nga xam ne sax faf léeg-léeg nga gis jigéen ju dee ci koñ bi mm-hmm. pour nga pour ñu am jigéen ju ko sang dañuy dem beneen ci beneen quartier. <laughs> te te du lu war a nekk. lu yomb la war nañu mën a organiser ci vacances yi ay cours jigéen yoo xam ne dañ mën a bu mbokkam jigéen génne àddina ñu mën ko sang loolu yëpp kon lu a mën a exploiter la. nga ne mais euh, ñu exploiter am ci xam-xamu taw it li gën a li nga xam mooy xam-xam bi jegale nit ak boromam wante na nga nag. boo nee nag li nga talutoon nga tal ko ci boole woo ci am pecc pourtant benn waaye dana la wax rek comme yaa ni li nga talutoon ma tal ko man pecc laa talutoon dama bëgg a fecc mm-hmm. <laughs> ñoom am na ñoo xam ne fi ne noonu lañu koy firee def ay vacances yoo xam ne dañuy fecc eh, danaay déglu ci oustaz Makhtar Sarr ko saf xorom maa koy tooñ na ko sëriñu caameen yi muy wax ne ku tele taalibe yi ñu bokk pooj nga bàyyi leen ñu dóor pooj wala maanaam boo leen teree na duñ tëye pot nga bàyyi leen ñu dóor pooj waaw wax na dëgg comme dañ leen tere pot war dañ leen tere dóor pooj xam nga ñaari wax ji boo ko seetee am na wëj umu naase ba tayib Euh, ma ñëw ci suñu gan gi nga xam ne moom ataaya fu mu tardé moo ko fa tardé Tafsir Moussa Gassama jógee ko ba euh, Kër daaru di ko masaw ci coone déplacement bi wax naa ci commencement bi nañ yegg si na bu yekk nag du Kër Madaro moo ko tardé naanam ataaya moo ko tardé kon Tafsir ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la baloo àq di la baal àq euh, di ñaan yàlla jaf ji yàlla bu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaatika comme li ñu waxoon ñu ngi fa yéene waxtaanee vacances yi. li ci nekk ci ay njariñ ak li ci nekk ci ay lorteef ak nu ñuy mën a exploiter vacances ba duñu per perdal temps bi ñu bëggoon question bu njëkk bi nan la ñuy feetoo vacances yi. waaw gannaaw bu ma nuyoo ñi fekk ak yow mi hmm. dala xamal ne loolu wax nag tàddeel seen dëkk bu xat bi moom tàddeel ba fi ñëw waaye boppam. dana naa bëgg a wàcc dox sax. kon da a toll sonn rek day gën hmm. euh, fekk mbokk mi di ko wax la. Hmm. waaye nag da ci am yu bare bare bari yu ñu jox xale yi. dañ ko moomut. ah waaw moomuñu ko. gis nga ñaar xale moomu ko jigéen. Hmm. boo ko wax dee nag mooy liberté ak démocratie. liberté ak démocratie. jigéen ak xale moomuñu ko moomuñu ko. lu leen ci génne. xale dañ koo yilif di ko yar te ñoragul. Hmm. amagul lu mu bëgg. Hmm. jigéen borom sentiment la. boo ko bàyyee ci sentiment am lu ko neex lay def. moo tax responsabilité yu bëri islam da ko koy teggil ndax sentiment yu bari yooyu. ñun nag. damay dafa toujours damay xool ci télé bi ay manifestation yu am man ñii de li ñuy manifester ñoo xar yeeg béy yi ko bokk. Sénégal lépp ci li ñuy manifester ñoo xar yeeg béy ko bokk. mooy lekk ak naan képp. yokk nañ ceeb bi yokk nañu mburu mi yokk nañu courant bi mais jikko yu yàqu yi nga xam ni mooy baasu lépp xeet bu jëm kanam ci jikko ngay jëme kanam mais wu dellu ginnaaw ci jikko ngay dellu ginnaaw. dañ cee dellu ginnaaw moom. même ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ak ñu koy laaj jotaguñ ci sax. déggoo kenn ci programme am mu tëral ci lu defar jikko yooyu cest à na xam naa ne feebar moom ku ko yëgul doo ko faj ku doo ko faj te lii feebar bi dalee dafa yàgg hmm. xam nga nun bëri lañ xamoon bër bër yow moom nga xamoon bi ngay jàng hmm. xale yi lay déglu te xamuñ bër mooy la waaw ah, bër mooy nga jàng nga jàng nga jàng nga jàng nga jàng ba nawet bi dikk nga am diir boo xam ne bii korite ñëw wala tabaski ñëw hmm. ñu may lu mat un mois boo xam ne doo ko jàng bu ko defee nga mën cee fa tuuti ndax it islam it du tëj nit ki rek mu ni mucc rek fu mu toll rek di jooy rek ak wax luy jooy mm-hmm. Mm-hmm. léeg-léeg am na ree am na féexal xol mais féexal xol bay tegu ci day tegu ci aw yoon bu na bu na ree lor borom musiba lay doon xam naa dinañ ci ñëw ci kanam maa ngi dégg bërki démb ñetti fan fukki nit ak juróom-ñeent denc ay waajur di ko seetaan te yëg ni am na ñuy dee ñu di ko bàyyi leen xool mooy ñoom xamuñu li ñu leen sàmmaloo seen doom yi xamuñu ko ndax gone moom Sëñ Modou Mokhtar waxoon rek Sëñ Modou Mokhtar bu jaamal mm. nee na bàyyam Alioune El Hadj Alioune Fatou nee na jàng ngir yàlla faa ko xamul faa faa juddu doon gone ñu di ma jàngal ba ma doon mag rek gone xamul lu baax ci moom ka ko yar moo xam la baax ci moom moo tax léeg-léeg bu ko ciy dugal du ko neex bu dee ba ci mujj gën ak lay door a xam ne lañ ñu doon dugal kat am na njëriñ. waaye xale bokkut bokkut ci li li ñu war a def xale yi bàyyi leen ñu dem ci géej gi. ci waxtaan déedéet déedéet du tax dem ci géej gi comme géej gi boo demee dee na ci am dee mën na ci am tey foofu ci géej bi amul ñu leen bu ñëwee naan yem leen fii ba boko xel nga dégg ci la ñu naan bay leen ñu am liberté da ngaa dafa mel nit ñi dañ leen bëgg ñu yewu leen rek lu leen neef def def lu leen neex wax lolu ak mu jëm du baax. Hmm. xalé yi bi vacances yi war nañ leen yilif nañ leen yilifon ba jang jàng kër goo fi dem bu jang jotee bala jang jot yee nañ xalé yépp ñu ndékki pour dem jàng ngir bañ tardé mais bu dimanche jotee bo ñëw ñëpp ay biddanti ba yaak ndaje sax dañuy biddanti. Hmm. lan mo waral lool moy yalla bu ayé duñ duñ bu neexé la ni yeewu bu yaali ayee nag moom dañuy teel a jóg jox ko ci yow. yaali yaali mooy ku dul yàlla parce que daan yàlla ak yaali ku dul yàlla yaali nga. yàlla ak yaali benn bis dama daan ñëw sax bu ma ñëwee bisu talaata laay jàngale directeur du ci jàngale. Hmm. Euh, su ma ñëwee fekk xale yi toog ubbi wuñu classe bi man ana ana ana caabi ji ñun directeur bi moo ko yor man ana mu ñu day nelaw man ne ndax est-ce que nageen démb mu ngi nelaw. altine ji nelawul kon talaata yi nga xam ne jàngalewul ci la nelaw mooy bi mu amee affaire ak moromam nitam jox na ko cër ndax xam ne bu ko deful mu sanctionné ko mu amee nag affaire rek borom borom yàlla yàlla borom bi dina sanctionné di da dul fii rek da dul fii rek waaye dina sanctionné bu nu xamoon loolu nun xam nun Sénégal lii fi nekk nii dañu ko imposé indi ko fii waaye loolu du sunu ndono xam nga mille mille mille huit cent cinquante cinq tubaab yi ñëw fii li ñu jëkk mooy taal daara Ali Amar Fall ba décrété ni kenn dootu fi ubbi daara te amuloo ci droit tey boo koy ubbi ñeenti ñeenti dëkk mooy man a dubbi ubbi nga koy ubbee Ndar Tëngéej Ndakaaru Gore ku dul foofu boo ko ubbee dañ lay alamaan dañ lay tëj kon am na lu ñu bëggoon a samp loolu samp lañ ko bu doon garab jibbi na ba màgg moo ngi ay doom moom lañ lekk fi mu ne fi mu nii buñ demee dema dema dem ba léegi ab balaa jàngal doom day ne ba wakaas jot desit yooyu mu doon ko jël nga xam ne xale bi sonn na bay bëgg a dee mu doon ko yóbbu ca daara ja xel ma nekkatu fa mu doon ko jàngal diine moo xam nga ne kooku nax na boppam nax na boppam nax na doomam pourtant mënoon nañoo fexe ba am ñaari njàng yëpp wala ñetti njàng sax dañu mm-hmm. sunu wolante rek mm-hmm. wallahi ba nga amee indépendance sunu nangu woon ñu teg ñaari njàng wala ñetti njàng njàngum tubaab mu anglais mu olof wala pël wala séréer wala langue nationale yi parce que itam wokk làkk ci làkku jàmbur te xamoo sa was nag monsieur bala mm. maa ngi dégg bërki démb rek daa ko wax waa ji maa ngi koy bëgg a gis sa benn sunaaci boo xam eh, ne mun a mun wiitee tegal na yetti yetti yetti yetti minute yetti minute wala da ko wax dañuy wax ñetti minute la wax la yox doo yett dañuy wax wala yaari minute wala yaari minute wala du yor sam xar mu xiif bay bëgg a dee nga bëgg ko yóbbu tubaatul jaay ko xooj sa rakkal ba fajar nga jox ko ko sol ko ba ko li wër ko bu mooy baat yi ñuy wax dañ ko war a togg ba mu ñor bu ko defee xale yi itam ñu xam ne ay doomi jullit lañ njàngum école araam bon bu fekkente ne du yàq njàngum diine mooy bu yàqee njàngum diine baaxatu bu yàqee njàngum diine baaxatu mhm. parce que nit ki àdduna la am ak alaxira te àdduna moom di nga xëy bàyyi ko fi ni nga ko fi fekkewoon ni nga ko fi bàyyee nga dem kër goo doo jóg mukk nag ni nga préparé gi ngir lekk ak naan képp doo ko préparé gee nga xam ne boo fa réew dootoo fa jóg kon maam yi dañ noo préparé loon dañu maam yi préparé ñu ca ba mu amee ba tey ñoo préparé yar yoo xam ne xoolal ma réew moo xam ne ku mu ku foraan dañ lay dóor nga delloo ko koy dénk boo ñëwee danga koy def ci benn morso dénk ko boo ñëwee di ko laaj mu la xamee nga morso mu laa ah mu la demal fenn ko tegoon wecc ko wu ma ko sax bu ñu demee ba léegi ñu léegi lijjanti la ñu amee xaalis kon ji koy yàqu la for moo amatut comme doo for léegi léegi ah. comme dañ da for de delo ah. te legi for amatu fogo ni mo andi lool. legi for amatul ñun ñaa ngi te de. <laughs> ñun ñaa ngi ko de man de bëri fan yëpp ah sama sama portable te jotu ma ko. ñun ñaa ngi ko de da ngaa naan delloo <laughs> kon vacances yi xale bi dañ ko war a jàpp. Hmm. pexe ba li mu wax mbokk wax na ko. boo dee xale am doole boo xam ne mën naa jàngi métier ñu jàngal ko métier. Hmm. comme nag ñoom li ñu gëmloo nit ñi mooy xale fekk amul 1400. kenn waru koo liggéeyloo. bu demee ba bëppee 1400 kañ koy liggéeyloo fii fett na. jëre jërëjëf euh, Tafsir Moussa Gassama Tafsir Moussa Gassama jàpp naa ne yaram bi tàng na lool. ne tàngul. mel na ni buñ la déggee wax nga wax ju am solo. na li ñuy tuddee liberté ak démocratie. jigéen gone bokkul. jigéen bokku ci gone bokku ci. muy wax ju wax ju ma nangu man. Ah. waaw du ma wax ne wax ju ñëpp nangu la waaye man nangu naa ko. koo ci koo ci parce euh, ñaar ñi nga cité ci lii. Hmm. koo ci dugal mu def lu ëpp. Ah, ah, te ñaar ñi ëpp na lu ëpp nag ak lu hmm. yées mooy yem. dara baaxu ci Eh, nga jox benn misaal wàññee ne 1855 ci la eh, tubaab bi lakkoon. daara xaari Amar Faar. waaw. Eh, ne kenn amul sañ-sañ ubbi daara. Ah. lu may bu ñu war ubbi ci ndar. Ah. wala Tëngéej wala Gorée wala dakaar ah, te da ngay am autorisation. te boobaay dafay am charte bu la wax ne war nga ko mën a def. loola wane nga ne fa ñu musiba yu toppee. ba jamono bii ñu tool mu mel ni feeñal nga ne doom waruñ ko jur en la asas muy am jot. Eh, dañ leen war toppatoo yiir leen yor leen jàngal leen nga ne bokkut ci li nga d'accord fiixal xale yi pour ñuy dem ci géej ga eh, eh, d'accord mu mel ni kon xale yi binduñ leen pour ñu war a fiix mën nañu féexee ne leen mel na ni liñ jàppit tey ne mooy fiixal xale yi mooy am peccakam woy sax moom ngay gis loolu du yoon déedéet ëpp nañ loolu ëpp nañ loolu bu fekkee bëgg nañ doom joo xam ne ëllëg kuy tekki la ah. duñ ko prévoir pour vacances pour fecc te lil asafi saddi li métti tey dëgg. te hmm. ñu bëri sax tey wax ji boo koy wax dañuy jàpp ne ngaa branché wul te fekk branché wul. ñoom ñoo branché wul <laughs> ñoom ñooñu ñoo branché wul. dañuy jàpp ne paa bi ah, branché wul sama sama waaja ah. sama maam dafa dem jóge jóge Saalum. Ah. ay bagages yu mu la ci oto yi mooy ma dem ma ñëw fii. Hmm. di ko seet si ñëw gare routière laaj ko mu ne fu mu jógee ma ne ko Bawol mu lu mu duggoon ma ne super ma ah da nga dem ci gare super ah li may wan ginnaaw ma ne ko ana gare super mu ma xamoo ko ma ne ko déedéet mu ree ba lu tàgg ma ne ko looy de yow yaa fi ne man néew ma fi naa ko bañ a xam ni bëgg a dem ni ko yow sax ni bu nit deewoon tey bàyyi jabar ak ndey ak benn doom bu jigéen bàyyi cent cinquante mi ni ñu koy miraase mun ma ah kooku dañ ko séddale doom jeeg jabar jabar yaay ji nag man ko yaay ji nag mun ma ah yaay ji la doon man ko yaay fan la doom bi dee tot doon yaa ngi ni yow itam xamoo lii ah, Gassama ko yaa ko tooñ. parce que ah, parce moom du doon koy mirage nga di koy indil. Ah, bi ñu des mooy eh, xam naa ne pas bu bari histoire nga waaye moom mooy tuloo nga bañ a dugg ci journaliste yi. Ah, dégg naa ngay wax naan benn journaliste bu wax yaar ak ñett. waaw waaw journaliste moom xam nga. am na suñu bëri dañoo war a jàngat waaw moom benn benn sànni bu leen bu leen jege. déedéet moom kay ndax xam naa ne kon dañ may sànni. tey <laughs> jërëjëf eh, Oustaz Mame Ngor ñu del si ak yow. Eh, li ñuy tuddee vacances yi ci lañ nekk. nan la ko waajur yi mën a préparer pour waajal xale yi defal leen planning boo xam ne danañ mën a jariñoo ci vacances loo xam ne ab yar lay nekk bi xaddi na sax ñu boyal leen rek alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa niñ koy mën a programmer préparer ko mooy responsabilité yi leen suñ borom joxoon du nekkul responsabilité yoo xam ni dafay mës a dagg ci wayjur bu nekk ndax suñ borom moom li mu joxoon doomu aadama amu ci benn jamono boo xam ne daf koy teggeek moom lu may dafa dem ba sàngoo suuf hmm. responsabilité bi mu koy jox la nga xam ne moom la koy programme mooy responsabilité bi mu ko joxoon jaarale ko ci yonente bi alayhi salaatu muy xool jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci doxalinam bu ko doxalee rek dana mën a yaraale xale yi ci programme bi nga xam ne moom lañ am muy vacances hmm. xam nga ñun sunu vacances yi réew mi boo xoolee àdduna bu yëpp sax ku ci nekk am nga sa mode colonie vacances booy def hmm. mais ñun mode colonie de vacances bi ñu am fii ci senegal dafa bari loo xam ni dafa bari fawda bu ëpp boo xam ni dafay waral waajur yi bari lu ñu perte ci seeni doom pour mën a récupérer loolu pour téye leen pour dugaleen ci yoon yi nga xam ne moom la ñu bëgg loolu nag lu jafe lay doon ndax responsabilité bi ñu fi tudd léegi ci départ bi muy ci njiiti réew yi ci la ñuy war di départ ndax loolu boo xoolee responsabilité la boo xam ne ñu bari dañ koy fàtte mooy nguur yi fi seen kàttan egg ak doole buñ ko dugalee ba mu jeex li ñuy canaliser mbir yi balay ëgsi ci wayjur yi wayjur yi bu boobaa ñoom liñ ciy am dafay néew doole maanaam ñoom ñële ñooy ñu leen ëpp doole tey boo xoolee comme ci misaal tey bu ñu tuddee géej gi yow mën nga tere sa doom bul dem géej waaye yow mii bàyyi wala di wayjur yi nga xam ne dañ xëy liggéeyi naka ngay def picc sa doom tere tere ko ba du génn loolu lu xaw a jafe lay doon ndax boo boo ne woon koy tëj dem sax du kër yëpp am buntu kër ci jamono toll léegi yow mi liggéey boo xëyee yaa ngi uti loo am bala ngay ñëw fekk xale bi mën naa génn kon li nga xam ne mooy code bi nga xam ne tey moom mooy li wër ci fi nga xam ne fi lañ war a mën a nekk war nañ teg ay ndaw yoo xam ne dañ leen a donte seen liggéey lay doon bu ñu xamee ne vacances yaa ngi ñëw comme xale dañ fay faral di dem ñooñu ñu recruter leen fay leen ba pare tasaare ko ci ñu ànd ak seeni yoo xam ne itam danañu mën di wër foofu ak téléphone yoo xam ne itam lu xew dañ ci mën a teel a jot. loolu bokk na ci li nga xam ne danañ leen dimbali ci biir way jëri nag boo ko xoolee plan bi nga xam ne tey dana leen arrangé muy bi ci doon ëpp doole ginnaaw bu ci état yi jàppee te état yi li ñu ciy jàppee mooy borom xam-xam toujours tamit am nañ ci responsabilité bu des boo xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam boo xoolee ci njalbeenu lislaam daana ko doxal xam naa dafa bareetul ndax bokkoon na ci li nga xam ne mooy gën a yeew ab société ndax société bu xasee ba am bari na loo jàpp ne mën nga koy def mais du yomb ndax daf lay ëpp doole yonent bi daan bind ay lettre ci buur yi yi nga xam ne booba lu mel ni que Hiraql ñu koy tuddee Hercule wala Kisra ak ñu mel ni ñoom di leen wax ni nañu gëm lislaam buñ ko gëmee seen jàmm ci la nekk yàlla dina leen fay ñaari yool muy nguur gi ñu nekk ak itam bu ëllëgee bu ñu faatoo yàlla fayal leen beneen payoor bu boobaa mu nekk ñaari ngañ may boo xoolee loolu borom xam-xam itam ñoom ñoo war di xelal li nga xam ne tey mooy nguur yi loolu leen bind ay lettre di leen ko yeggee bu jaree ñu recevoir leen ñu recevoir leen bu jaree ñu gis gis leen ba nga xam ne ñoom it danañ xam lan mooy responsabilité réew yi lu baree bari boo dee xool penc mi ni muy doxee da ngay jàpp ni est-ce que lii am na ku ci xam dara wala am na ko mën wala am na ku ci am xalaat léegi nag bu loolu mënu am kon waajur yi ñoom it du tee seen responsabilité moom naka jekk daf fay nekk muy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci benn ni responsabilité yi mboolem ku yàlla bind am nga responsabilité bu mu la teg moo xam ki ci kaw la ak fa dooleem toll ki ci souf la ak fi dolem tollu mo xam borom keur la mo xam même ba ci soxna ci nek ci bir keur gi responsabilité yi ko suñu borom sant nga xamni ni dafa delu ci walu keur ak borom keur ci bopam sax li nga xamni moy liko war mo xam ku man la ak ku mënul ku ci nek amna fu sa carte ñam lool suñu borom gàll na responsabilité yoy nak bu ko topé ba mu jeex kenn ku nek la nga man boko ci xese def bu ci doolee nguur duggé da fay mëna sotti ndax bu yàggul barki dem dañu toog di xool euh, anarchie bi xam ne dafa xew ci réew mi nii ak désordre bi boo yëg oto nga koy xam nit ñi même ci yëg oto da ngay gis njëkkante boo xam ne amul rang amul dara ku nekk lan bëgg mbëkk sa morom pour yëg mu nekk mbir yoo xam ni boo xoolee da ngay xalaat lii lan mooy lu ko war a waral donte oto bi sax bu taxawoon nit ñi yëg normal da ngay gis ni mën nañ ci yëg ba fees te du lor kenn te ñëpp danañ ci xaj waaye du tax tàmmuñu ko dañu njëkkante ñu ma ci waxtaan ak mu toog ba càgg bii si dem dikk romb ko mu ne ko yii de moom dañoo organiser gis nga dañoo organiser wu doo dugg doo ci dugg ba fekk kuy coow duñu taxaw fudul arrêt même ki ci nekk sax bu dépassé arrêt bi sax nga gis ni dépassé na ko doo wax dara da dem ba ci benn arrêt nga wàcc ma ne ko waaw parce que gis nga lii nii ñu ko organiser ki ko moom na mu def ba organiser ko ma ne ko bu ko defoon yii ci des mu mel ni yii waaye defuñu ko yii dafa am ñun ko bàyyi leel yële nag am ñu ko téyel seen bopp organiser ko njaboot gi itam noonu la mel li ngay jooy ci daara itam boo xooleel moo am am na ci école yoo xam ne dañ leen organiser ni ñu leen organiser même bu école yi tijjee boo xoolee di nga ci xeeti école yoo xam ne ni ñu leen organiser wuute naa yeneen xeeti école yi ci des am na ci école yoo xam ne même ña fay dem buñ wàccee ak bu ñu liggéey bu ñu demee jàngi ak bu ñu jàngiwul parce que amul différence xale yi ciy génnee tam léeg-léeg nga gis xale boo xam ne wuyu juróom def na li mu mën ci biir kër gi waaye li mu yàqoo yàqoo wu ko ci biir kër gi ci mbedd mi la koy yàqoo am na ci yoo xam ne sax léeg-léeg fa ñu jàng sax lañ koy yàqoo fa la ñu am ay jikko loolu lu ko waral muy responsabilité yu manqué yi nga xam ni yow fi sa kàttan yam am na geneen kàttan gu fa waroon a sosoo continuer te amul muy li nga waxoon léegi bokk na ci li nga xam ne moo ko jëmbat muy li ñu tuddee xeetu démocratie ak yi nga fi tudd léegi muy yewi bi ñu yewu nit ñi loolu itam tax na mu tëttic ci li nga xam ne mooy njaboot gi pour ñu jël xale yi yar leen yar bi nga xam ne moo war li nga fi tudd léegi dafa am solo xale xamul lu mu bëgg way juram moo xam lu mu bëgg ndax dama ko daan expliquer ci ay nit bu ñuy wax ci dara man ko gis nga l'islam mom rek moy benn diiné bu deppo xelu nit ba paré ndar kepp xel waye leneen tëralin bu mën am ci kaw bu tëj xel bu dul l'islam ni mu doxale amul ba nga koy xam nga xol tay anarchie yi nit ñi di dund waye bu nek amna luñu bayyi boko xolé man ko nga ko dëppaleeg euh, li afrandi di ci sura tutaha wa man arada an zikri fa inna lahum aysatan danka am yenen yo xamni tam te ku juyoo ak yonent bi sallallahu nangam yooyu boo ko xoolee aspect benn par benn fët boo gis dangay gis ni jàkkaarloo nag lu ñu bàyyi. li ñu bàyyi mooy li nga xam ne tey mooy li nga xam ne mooy tur bi indi loolu boo ko xoolee tey yemul ci xale yi kese boo ko xoolee tey ci même dëkk bi nii da ngay gis ni jeunesse bi mel lu leen ci dimbali bariwul ndax xale xamul dara buy màgg am na lu mu gëm am na lu mu jàpp ni noonu am na lu mu gis ma ne ko loolu muy gis moom lay roy moom lay adopté. bu ko defee parent bi ci boppam bu ko bëggee génne ci loolu moom seen gis-gis yi dafay wuti rawatina jamono bi nga xam ne dañoo nekk ci monde boo xam ne dafa xam nekk monde bu xëttaloo li xale bi di gis wala mu di ko yëg yow mi waajuram bi sax li ci ëpp doo ko xam bu duggee ci net bi lam fa xam yow mi bàyyam sax mën nga ko bañ a xam amaanal xam-xam ba mu sax xamoo ko ci ma nga fay jëlee yeneen jikko yoo xam ni yow yooyu waajur bi mën na ko bañ a xam bu ko defee nag yooyu boo ko boolee mhm. responsabilité yooyu yëpp nag kon faaw mu nekk loo xam ne waajur yi dañuy takku taxaw waaye nag lu ñu fàtte man du ma ko fàtte moom man ci sama gis-gis lu ñu takku takku takku taxaw du tey nguur yi danañ weñ seen loxo ñoom ñu jëm ci responsabilité xale yi gis nga beneen bokk na ci gis nga ni jeunesse bi mel ni ci ñàkk a liggéey boo xoolee tey xale yi tey liggéeyatuñu li ci ëpp li gën yomb la ñuy def mooy way ak fecc ak tappale ak naxaati léegi loolu mooy seen liggéey waaye du liggéey déedéet fecc du liggéey même làmb ji nga fi gis du liggéey way du liggéey liggéey ci lislaam du loolu donte nag boo ko waxee fi jamono toll ñu am luñ ko gisee ndax ñoom liggéey li ko jàpp mooy lépp lu la mën a may xaalis liggéey la <laughs> même riba day may xaalis mais du liggéey sàcc man nit mën na ko def ricc am ci alal mais du liggéey nangu sa alali morom du liggéey nax nit teg pexe moo xam ne du ko xam boo alal dugg ca nga jël ko du liggéey triande nit ki ba dugal ko ci réseau yoo xam ne même boo demoon ci fi ñuy àttee moom dafa mën a am dëgg ndax yoon yan ko jaarale moom boobaa moom mi nelaw wala li ñuy tuddee yow yaa xamul lu tax lu mu nekk liggéey loolu nag ay mbir yu yoo xam ne bu ñu ko xoolee ci colonie vacances bii mhm. da cey gën a amee doole ndax xale yi dañoo ëpp liberté moo tax liy fës dig fës mais ci bu colonie vacances bi amul itam presque lu mel noonu mu ngi am waaye daal li ci mën a xew daal mooy wéy juri faaw ñu jàppale leen ci loolu teg ay nit ñoo xam dañ leen recruter ñoom fi danger yi war a mën a am ak musiba yi ñu recruter leen ñu defa dem xam nga am na loo xam tey nga baal ma hmm. suñu état yi seen responsabilité la woon waaye daf dañ ko partagé ba ñoom bokkuñu ci am yoo xam ne yéegu ni war nañ ko def boo ko waxoon sax dafa am xam ne dañuy jàpp ni yow danga nga bëgg a indi benn monde boo xam ne xëy na kon diine nga ko bëgg jox ñu amul diine wala ñu bokkuñu ci kuréel sàngam noo leen di def te déedéet fekk na jàmmi nit rek lañ ko soxla woon boo gisee yeneen bi bi mu daan wax buur yi da ngeen di ñëw gëm lislaam ngeen mucc da ci daan teg toujours benn baat bu am solo wasalaamun ala man tabi'al huda muy jàmm ñel na ki topp njub gis nga njub ñun li ñuy déggee njub dafa gàtt njub da nga ko jëm ku jub la dañuy jàpp ne njub moom da nga ko yóbbu rek isina salaatul mustaqim muy sëgg di ah fekk déedéet société bi li mu soxla ci njub dafa bari mooy nit ñi mel niñu war a mel état tey waroon na egg ci ku ñu gis tey nga wàcce say tubéy nii dañ la war a jàpp yóbbu la police ndax waruñu ko nangu am na wateef yoo xam ne buñ ko gisee ci nit ki dañ ko war a jàpp teg ko ci yoon ngir lan jubbanti xale yi ba keroog ñu àgg ci yenn dimension yi ñu xam ne lii bokkul ci li nga xam ni ñoom war nañ koo màggaale. jërëjëf euh, oustaz euh, Mame Ngor euh, jàpp naa ne buñ la déggee feeñal nga ne buñ delloo ci njàngaleem yontu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mel na ni li li yàqu woon dana jag li dëngoo dana jub feeñal nga it del siyaat mel ni insisté nga ci comme li Cheikh Diop waxoon ne état yi dañ ci am cër boo xam ne cërëb gaynde la ñoo ci wara jëk ñëpp ñoo ci wara a mujj ñëpp ndax ñoo wara sam sàmm gi sam réew mi ñom lañ denk suñu sécurité ñoo fa lajoon ne nañ ko ñu jox leen ko kon ñoom it war na wané nga ne war nañ sam leen ñi seen yi ci place yi ñi dem ndax ki xey wara ñibi wara dem liggéey te kërëm war na nga ne amul buntu kër wax nga dëgg so démé kër borom këri sant ku kër ga sama amul buntu kër ta xana do ko wax na ko ngay xey kër gi amul buntu kër nga toog fi tam wara daw dawi dépense faaw mu dem dawi dépense kon kooku am dafa am foo ko war a féetee ci fu mel eh, feeñal nga ne eh, loolu nag kon ñooñu dañ leen war a taxawee ci liñ mel wane nga ne borom xam-xam am nañ ci cër boo xam ne eh, waruñ ko ignorer yontu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam daf daa bind ay leetar di ko yónnee ci buur yi jamononte woon di leen xamal importance su luy diine ku ci dugg mucc nga ne borom xam-xam it amuñ ngàntal bind leetar président de la république waman waalaahu ak ñi ko wër xamal leen ne lii moo war a nekk d'accord mais jàpp naa ne boo ko bindee est-ce que président dana ci jot. parce que bu fekkee sa sa sa yërëf dafa woyof comme man a gasama. boo demee du yegg fa ñu ko yegg. Ah, mën ah, nga ko bind ndax benn waay bu sant si moo koy bloqué jeex na ah, tout court. la ngay wax comme intéressé ko mën na bañ a yegg loolu it sikk la soo xam ne daf ñoo topp toppee ñu fa sori. kon borom xam-xam yi feeñal nga lu ñu war a def la kon mu mel ne la déggee am na lu bëri loo xam ne. dañ koy sëf ci benn côté gis gàllankoor ba fekk loxo yi ñëpp ci war a tàbbi lu loxo yi ñëpp war a tàbbi nag soo ko yenee yenn loxo gàllankoor ba day gën a rëy tey imam Cheikh ñu ñëw ci yow maanaam euh, nan lañu borom euh, waajur yi mën a def ba planifie vacances yi ba mu nekk njariñ ñeel xale yi imam Cheikh euh, ñu ngi dalal sunu xarit sunu baay sunu borom sunu sëriñ sunu lépp moom tabarkàllah ko ko naw laa ci wàllu mm-hmm. coon sol coonoy xam-xam Serigne dana sant Gassam. ah Gassam Serigne mag la. <laughs> ñu ngi koy masawoon nag naa war nga ko wutal ndox mu sedd bi mu egsee wala bisaab <laughs> ah. est-ce que est-ce que jaaduwul ci man wala yow wala Serigne bi ànd ak sa doom ci géej gi ne ko sangul. yemal fii parce que xale bi kumpa la kumpa day sonal xale. léeg-léeg nga tere ko loo xam ne amul problème yaa ko ci accompagner wul rek. bu ko xamoon rek du bu ko xamoon xam ne lii c'est pas un problème. dana ko defee dam ko war a defee mucc ci bëri na gone yu lapp yoo xam ne ñàkk xam géej moo leen ko yóbbee ak ñàkk ca man dara mm-hmm. oui le problème d' accompagner les enfants yóbbu leen ba ci buntu géej nga toog sa chaise yow bu la sawaree sax nga soo sa blouson ànd ak ñoom ba ci buntu géej nga sangu wala ne lii du du du yow du musibam naaru laay ayul dafa am danger bu ci nekk nag boo xam ne soo amul nu mu tudd ak waggar rek mu mu tàbbi ci yow mm-hmm. ba ba ba ba mu yëg ni accompagner ko ci loo xam ne kumpa la waroon noon nekk bàyyi ma ju ko nar alak bu léegi mu ñeme ko amul problème gis nga dootu dem sax géej wala buy buy dem day tax papa man te te naa dem géej nga ne ko waa nañu ànd dem. amul problème gis nga waajur yi accompagner xale yi ci yu mel noonu gis nga xale bi dafa romb benn bërëb bu yi toog di naan kafe maanaam mu luxe trop mu yéem lool. muy def ay pexe pour pour découvrir ko xëyal jàpp ci loxoom jël taxi dugal ko moom ci place ba ne ko toogal mu toog nga ne garçon mu ñëw xeeli boisson ngeen naan wala xam nga oh loolu maanaam xale yi na leen di permettre ñu découvrir loo xam ne bu buñ leen ci accompagner dana woyof que ñoom ñu demal seen bopp ca loola. problème la loolu Sénégal. Hmm. bëri na lu lu nu lu nu garawal fi mu toll nii yow bu nu àndoon dugg ci benn restaurant wala benn euh, select wala benn bërëb bu xaw a bakk dañu ne ah imam Cheikh imam Cheikh Ndiane bi tey de seen seen wax ji yëpp ña nga bërëb bi nga xam ne tubaab yaa ko moom fekk dara newu ci. maanaam gisuñ ne war ngeen faa dugg. maanaam maanaam du dara newu ca jaar ndakaaru marda dugg fen naan sa lu sedd naan sa kafe loolu ci vacances yi nañ ci jàngal xale yi wal ne leen yii li ngeen doon def kumpa jàpp ne musiba la wala lu leen dépassé la dara newu ci nañ dem ca bërëb yooyu ma accompagner leen ca sax financé leen ba ngeen xam ne fii du dara affaire bi yow yaa am solo mais du bërëb bi. Cheikh maa ngi naw benn imam bu baax imam ratib euh, zawiya xaaj Hadj Malick bu Tivaouane Cheikh Tidiane Tall Cheikh Ahmad Tidiane démb fa la añee ak moom ñoo bokk añ mu ne ma imaam euh, xale bi Amérique Amérique la jóge kii Italie la jóge kii France la jóge seen bàyyi ñoo ñoo leen envoyé ci vacance yi pour ñu ñëw jàng si alxuraan ci internat dafa am internat comme man man maa ngi internat sama kër boo xam ne lu mel noonu dama koy def ak ñu bari maanaam xale yi amuñu temps wu li nga sama wax dëgg la mooy jullit du sàggan bay dabaatal waaye nag bu sàgganee na dabaatal hmm? ñaar yox yëpp la julit war ta saggan bay dabatal naam ah, waaye nag bu saggane na dabatal <laughs> xam nga ma wax donc gone yi nga xam dañu leen saggane ba xamuñu lu bari ci alxuraan nañ leen dabatal jóga leen ci daara ñu jàng boo gisee ma insister ci xam son sa borom cheikh ko xam yàlla régler yàlla ku ko xam rek xam sa bopp boo xamee yàlla xam sa bopp régler da ngay def tekk ngay def bëri na taale boo gis mun a mun a amul dara sax waaye am na alal ndax xol ba dal wa rafatna ala qulubihim id qaamu innahum fityatun amanu bi rabbihim gis nga innahum fityatun amanu bi rabbihim li leen may rabatna ala qulubihim mooy amanu bi rabbihim wa zidnahum ala hudan wa rabatna ala qulubihim id qaamu donc ndaw ñi na leen wax ni leen départ numéro un mooy xamal ni ndaw ak mag dana faatu te yow yaay nekk responsable ëllëg ci société bi yaa war nekk imam yaa war nekk chef d'état yaa war nekk premier ministre yaa war nekk député nañu gëm loolu loolu xale yi effectivement noonu la yaa war nekk DG yaa war nekk oustaz yaa war a nekk médecin buy faj yaa war a nekk sage am xoolal xale bu jigéen bi nga xam ne gëmul lu dul dem université gàddu as càkko sam su ndaw wala dem euh, lycée ñëw mën na sombi sax mënu ko togg ci kër gi <laughs> am na wala amul cheikh ak bari am na jaba am na sëyu tas yoo xam ne dañuy nëbb la war a tas ga parce que ndaw sa mënta togg te waroon naa mën a togg. mais passé mën a togg togg ba togg ci asamaan si la waroon man def parce que sëy bokk na ca man mën a togg nag Cheikh jabar ju mën a togg wax dëgg yàlla Cheikh bëggu ko bëgguma ko et pourtant occasion la ci vacances yu jàngal xale yi togg. comme ndaw si nee na euh, maman man vraiment je je pars à l'école je pas le temps de cuisiner wala loolu la wax ndey ne ko man aw ma temps wu togg ndey ji ne ko baax na bu ñetti weer yi ñëwee ne ko ne léegi am nga temps cuisiner bu ne ko waaw bu ne ko waa ñu salaamaaleykum نابلس استق دا خسر مي لون ما دخلش يا موي موي استغناء الفراغ والفرص موي جارينيو تان بيغا ام nga جارينيو كو خالي بي مي تي كيرغي مي خامول لان لا باي بي داج تي سنوري بور اندي لومو جوخي ديبانس باي بي ماسون لا واي بو افنا فاكانس دا جاب تي لوخوم يوب كو تي ماسونوري با ميكانيسيان لاكو يوبالي تيير لا مانا بو كين خيب لولو الو كل فاكانس انكور اون فا شيخ لو جانغال خالي فيتياك واي maanaam sëñ bu baax bi li mu wax yal na ko yàlla fay yiw maanaam liberté xam naa da ko yemalee rek ci xale ak jigéen mais baaxul ci kenn ndax amul al xoriya hmm. amul de amul amul de man sax foofu laa foofu laa koy dabaatal man liberté ci boppa moo amul bañ naan góor ak xale xale jigéen xurriya amul addunya daanu daaru hammin déglul de hammin wa xusnin wa xawfin wa hërëmin wa maradin wa mawtin kër gi liberté xañ na fii mi ngi fi maanaam kër la goo xam ne feebare ngi fi di la xaar njàq ñak màgget dé mi ngi fi di la xaar yoy yoy foy libéré. amna ben baat bu xale di wax moy xàppi fi xàppi xaju fi di xaju fi di xàppi xaju fi di àjjana la am. jërëjëf. waaw dégg déglu wasxaabu ma sahabu yami fi sidri mahdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in in masku loolu mooy xàppi moy jaxan lépp di dox. jërëjëf imam imam imam Cheikh job imam buñ la déggé moy feñal nga ne. benn ni kon euh, planning planning bi ñu war a def ci vacances yi. Mhm. mooy xamal xale yi li ñu umpule. ndax nit ñaare lu ko ump dana ko jéem a xam. booy jàng jàngkati fisiyaa yi dañuy wax ne a adaqt yu haddi fi infijaar mhm. mhm. nit ki su fekkee dafa am lu war xam. nga di ko coincé toujours mu bañ ko xam. day xëy rek fipp mamu. wala wala mu sotax lu jaar ci beneen côté ba la ko cay fekk fekk ko ca. nga ne kon war nañ leen xamal géej lii la. mais lañ ciy séentu ci danse am na ci mais am na noo koy xamee du demee noona war leen xamalit liy ndox ci dëkk bi place bu nekk ñu jéem leen fa yóbbu ba dindi seen kumpa ba ëllëg nit du la nax ci lu ñu demee noonu mhm. nga wane ne parfois nag buñ ca gisee ab imam dañu jàpp ne imam bi war ta dem ci luñ mel mhm. te fekk loolu njuumte lay nekk danaa ci joxe misaal toujours ne euh, sama benn xarit bu ñu journaliste bu ñuy wax Pape Samba Kane mhm. Euh, maa ngi koy nuyu passage daf maay wax dañu wax ba ma ci demee noonu ci mbiri journaliste yi. ñu mhm. ko wax na ko lu tax démb. boo daa liir journal wala ngay déglu rajo bu ñu waxee nga ne li ñu xibaar bi ma dégg dëgg la lu tax nga ne rajo yee ko wax lu tax journal yee ko bind. te tey ngay déglu xibaar déglu rajo pare na d'accord ma ci lu tax ñu ne position journaliste yi mu ne ma xam nga lu ko waral mu ne mu ne ma journaliste démb dañ daa wutal nit ngànt tey duñ wutal nit ngànt mu ne ma masalan bu ñu jékki woon ba une heure de matin ma daje yow ci pomu yëngu leen bi euh, bu ma xëyee waruma bind rek nag gis naa gis naa ustaas bi tey yëngu leen. Hmm. te ñu bëri tey bu fekkee journaliste yi sant Cissé wala Touré la bu ñu xëyee dañ lay tiitiree rek ne. dajee naa ustaas bi tey yëngu leen wax mu ne mu waruñ def lool dañ la war a wutal buumi ngànt ne est-ce que doomam fàqul mu di ko wër. Ah. est-ce que est-ce que est-ce que nangam yooyu yëpp mu ne mooy yooyu yëpp dañ la ko war a wutal mooy li nga wax nii tey maanaam imam bi war nga dajeeg moom foo xam ne jàpp nga ne waru fa nekk mais seetal lu ko fi indi lan dafa am dafa am loo ko war a am ngànt loo xam ne yaa ko a firil avant tout mais loolu feneen mel ne dafa jeex amu ci feeñal ngay àddina bii ñu dund comme ni gasame yoo xam ne liberté jigéen ak euh, xale xajuñ ci wane nga kenn ci xajul sax ndax dafa diir bi ñu fi nekk li ñu fi war dafa bëri te du ñu wàcc comme li ñu fi war bari na te du ñu wàcc fu ñuy libéré fan la kon wax nga ne liberté fële rek lañ koy amee yowmal xiyaama mu fekkit nga nekkoon ci lu neex suñu borom fekk nga tegoon sa tànk ci siraatal mustaqim yàlla bokk ci ñaa am liberté fële ëllëg mhm. euh, nan la waajur yi mën a planifier euh, li ñuy tuddee vacances yi ba mu nekk njariñ ñeel doom yi bañ a nekk lorteef ma fàttali bokk yi ñuy seetaan ne koo xam ne bëgg na bokk ci waxtaan wi moo xam day yokk ci lu ñu waxtaan moo xam dafa am lu muy laaj man na joko ñun ci 88 628 11 22 bismillah. Sass Bissé. Hmm. Oh, man réew de waaye réew mi lu fi nit ñi bëgg mën nañ koo def. réew mi waaw lu tax nga wax loolu. ok damay wax toujours ni xalifa sonoro yi ci Sénégal yëpp bu ñu daje ci benn kër. Hmm. tey maanaam ñu daje tey Touba mbaa ñu daje Tivaouane. Hmm. buñ fa wax dara na Sénégal yéeg ni daje nañ rek ba ngoon jot ku ne ñibbi. ataay waaw bañ bay ataay sax ni nañu rek. ñi jiite réew mi wala ñu bëgg a jiite réew mi dinañ laaj lu ñu doon daje. dëgg la ñu ne daje wuñu dara nanga mag nanga ak nangam moonu neexul ci réew mi nangam ak nangam ak nangam manqué na ci réew mi. aywa su ngeen nooy defalee loolu dinañ leen jàppale dina wax ñu ànd ak ñu ñu jàppale leen. macha allah ko deful nag ñun suñu yoon. macha allah balaa ngoon ñu defal leen ko. Mhm. waaye boo ko dee seet ñu bari seen i seeni seen i kër seeni i oto seen i soxna seeni i taalube seen i doom seen i seen i loolu revendication yu la mais l'islam lim si am bariwul likulli qatilin naihatun yanuhnahu walaysa ala dini mu'minin naihu diine ji man ngaa wax ni daanaka boo ko doon gor suba ba ngoon doggi ko la bul dóor kon yii am yëpp bu ñu daje woon mbokk suñu doy la parce que président bis bu jëloon benn benn initiative def ko te ñoom ñaan ñaanuñu ko léegi nga dégg su naa si yeeg opposition bi ñëpp wax sama soxna dama toog ba yàgg mu man ndax damay bëgg wax ma ne ko mu ñi ñii wax naan géej gi amuti jël di wax président ma président lu yoon ci géej gi ak jën yi mooy la wax noonu nit ñi foofu si man léegi kenn ku ne sa responsabilité ba nga waroon a yàlla danga ko bëgg jël sànni ko keneen mais maa la waatal ni hmm. boo demee ci këri diine yi ak xew yi nga xam ne moo xewi diine yi ni ko état yi tewoo di leen defal lañ ci bëgg balaa ñëw ñu waajal ko ñu leen joxoon doléance u hmm. li ñu naqari ci réew mi gi te loolu bokk ci xale yi la ak yeneen ak yeneen ak yàqute geeg càcc ji ak rey mi gu bari bii te kenn topp leen kon ñu rek la ko lañ ko réglé mais nag bu fekkente ne suñuy doléance loolu nekku ci mooy li nit ñi lekk rek nga xar yeeg bëy li ñu bokk xar yeeg bëy ba fàttaliwaale ci ni ndox moom nga xam ne ñoo dem muy labal nit ñi hmm. xanaa xaa gars yi nga xam ne bala ñoo lekk fam ndox wis ko ca wala bala ñoo génn seen kër sotti ko seen bulu kër yi ndox daa am jàmm xaa kon géej moom daa bokku ci ndox yi ndox la mais daa ànd ak dooleem daa ànd ak dooleem kon ndox joxewul jàmm jàmm yàllaa ko yàlla mooy jàmm mooy joxe jàmm kon géej jàmm fu ñu koy yem ndax amul bàngaas suñuy jàpp hmm. kon ku cay dem ku ku ko xamul woon dégg naa sa keroog Koraan euh, ñi fay dem mooy ajoor yi waaye ñun lébu yi naa nga naan mais lébu yi dañ ci lab léeg-léeg. léeg-léeg lébu yi ci lébu këdu jaan léeg-léeg jaan jaan mu ko mu jëg ko géej moom xamul kenn. mbaa yow dooy dem ci géej rek. alaatuma ko. ndox sax ku ma ko ci tàngaloo du ma ko tàng jën ma ciy génne daan soxla na kon. parce que man biir dama mënoo ndox maa yow a yem. man maanaam naa ndoxum dex. ndoxum dex ba ba ba may ba may doon gone. suñu dëkk dafa mën ay dex. te xam nga ni dex dégg nga sëñ Moussa Ka li mu wax dañuy hmm. sëriñ Tuubaa di maanaam dex ko dem duy ku soobu ni mes bu génnee xam boroomam ku soobu dex na xam ndox dof bi yeewul dégg nga ku soobu dex na xam ndox dof bi yeewul la ah, ah, ndox lewet na tawex ci biiram tawattum ndox lewet na tawex ci biiram ku sàggan sànku faw lap te doo set doo setal doo xam la hmm. loo xam ne bu may dañ ne sax ndox moo xamul kañ la taa dof mooy nga jaar ci di ca dugg. ndox mm-hmm, mm-hmm. moo xam kañ nga tax. Mm-hmm. dox rek bayam ci am ndox mi ca dugg. dofa tax nga di ko macha allah kon xale yi responsabilité la yàlla dañu koo jox ñaata ñoo am ñoo amul soxna ñaata ñoo am soxna te amuñu doom kon yow mi am doom doom jooju da ko war a sàmm. sàmm ko du bëgg jox ko li mu bëgg rek xale ba dafa doon mag gis benn bët ba pat ñu baal ma mu laaj yaayam lu ko def mu ne ko ah doom bi ngay gone da ngaa yoroon ak ràbb rek doon ko faye ah ma bëggoon la neex ma bàyyi la ràbb gi amu jant sa bët. kon booba nangu woon ko booba xale bee jooy moo gënoon fuuf mm-hmm. ustaas Bisse mm-hmm. olof juumul si li mu wax ne yar yar yar yar yar lay àndal yar lay yar lay yar lay ah, tekki de ah. yar day ànd akub yar mm-hmm. gis nga tubaab yi ñoo nu lor te li leen jig jibunu tubaab yi li leen jig jibunu mais léegi ñun dañu ko tere yar waaw laan tubaab yéen ko tere ñoo nu ko tere tubaab yéen ko tere ñun fi mu ne nii gis nga lu bare bare bare lu ñu def defal ko suñu bopp de dama noonu wokkal ma dootul fay xesen moo tax du neex sunu wopp sunu wokkaloon sunu bopp tey jii lii du am waaye dem tugal jël seeni i aada ak seen i yëpp mbaa sax tugal ñu xeex nu bàyyi fi ay yëfam tubaab yi nga xam ne ñoom tere yar da nga xam ñoom am nañu ay loi yoo xam ne dañ koy respecté buñ lay wokkal du neex de nu muy neexee am na jëmal kaw jëmal suuf <laughs> wokkal baax wokkal ndànk tubaab yooyu respecté nañ seen i loi ragaluñu yàlla de hmm. mais seen loi yooyu dañ koo respecté hmm. ñun nag nun dañoo génne suñuy kër te yar ba nu mag ñi yoroon jëkk ni ko fa ñukk taaku ci yaru tubaab yi nekk ci diggante bi doon ay cegi cagaj loolu moom rey moo tax Afrique yi du gaaw a dem de parce que àdduna boo xam ne nit ña gëmuñu liggéey seen jikko rafetul hmm. yaruwuñu lu neex waay def lu neex waay wax ko ni dana dem dalay nax lu mais Tafsir Moussa sama ndax doon nañ ñu ni dañoo neex ñun ñoo toog rek croiser les bras def nii bàyyee tubaab bi lu ko neex mu def mais fippu dafa war a am lu tax fippu wuñ waaw nga euh, séq hmm. séq dañ ko ni céeri yaa seq waaw dañu yàpp dañ ko ne yàpp ceeli waaw tey fu la romb ba tey ngay waaf rek mun loolu ca ba muy gone la ba muy gone ca la ko noggutu woon hmm. noggutu ko noggutoon noggutu ba li mu doon doon magit fu mu ko romb rek mu waaw <laughs> xam nga tubaab bi dafa ne woon dafa aasoon nen ba woon fi ci mooy ñii di xëccoo fii ku ca bokkoon su waxee yow dana leer nañu kam yi naw su li xaameet ni jullit la fekk lam ba tugal la hmm. sol nañ leen seeni xel dem loolu moo tax mënu dem macha allah su ni xel lañ seen sol. nit na bu xalaatee ci xelum jàmbur la ko xëy rek moom lay moom lay. jërëjëf euh, Tafsir Moussa Gassama euh, mel na ni misaal bi nga joxe ci seq gi ak till ak euh, ceeli bi. Mhm. doy na misaal. la ca ba muy doon xale la ko nappoon. nappoon donte moo ko ëpp. Mhm. mais seen yaakaar na ne fu mu fu mu seen ceeli rek. waaw mu ko defoon ci xale moom la koy def. waaw rek tey oustaz mhm. li ñu nekk muy vacances yi. am na li ñuy tuddee njariñ am na ay lorteef nan lañ mën a nattee la ca nekk ci ay njariñ ak la ca nekk ci ay lorteef ak nan lañ mën a fanqalee suñ ndaw ñi waxtuy waxtuy widd yooyu ñi bañ ko dugal ci ay caaxaan alhamdulilahi rabbil alamin waaw li ci vacances am na ay njariñ am na ay lorteef ndax addina noonu la ko yàlla binde ndax jamono bu nekk maam Ngor ñu jël ki ci yoon wi ti salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi kan la. Ee, Mouhamed Lamine Diop la. Mouhamed Lamine Diop yow la ñuy déglu. voilà ñu ngi leen di wax. Hmm. ñu ngi leen di ziar ñu ngi kontaan ci émission bi bu baax a baax. ah kay Diop. dañuy dañuy wax taxaw sax émission bi te li ñu saa di wax. daanaka dañuy dañuy jàpp sax ni bëri na yoo xam ne dañu tuddee foofu te ñun dañu ko bàyyi. lépp laat nag dafa waxoon ne tubaab bi moom lim man jàngale mooy dalay jàngal ba tudd la nax mu jàngal la ba ngay naxe mu jàngal boo nax du ko xam loolu leen waxoon ne moom baat bi loolu kese la a ci njàng ma nag boo ko xoolee ci biir bi sax da ngay gis ñoom léegi nag ñun demee ba commencé toll ci ay vacances pour xool xale yi dañuy am coono parce que xam moom muy bi ragal ni si bërimoo daanu nga tegu nga ko xool bu ko yee di màtt nga xool cent ventilateur bi yële bu baax ngay dee tàngaay mais yow nga ñu jàpp ni ci ñaari a am te dafa ko war a continuer ci am parce que bi ñu sëy bi ñu ko ñuy def dafa wax ne ji dañuy démocrate ñu ne ko yéen sëriñ bi man di yem képp ñu ne loolu baaxul li baaxul li tubaab bi jox dafa bari yow nag li ñu dimbali mooy fexe ba def yàlla rek wa man a billah faqad zalama nafsahu frontière yàlla yi la ñu war a xool ci yem yem bi góorgóorlu ci suñu biir da koo jaxasal lenn لأن الزول بريء فحسبتم خلقتكم حبرة وأنكم إلينا لا تجدون تكتبوا ويدوا سنغال لأن النبي ñoom dañuy bëri ñooy rëy ñooy lépp ba ba léegi ñu ngi canaliser suuflaas di leen dugal ci seen théâtre seen fekk ñu dugg ak ci ñu jeex léegi nag dafa jot ñu ngi jëndal xalaat parce que ko arrêté ñu jox la ñaar li nga defee bariwul boo juddoo dañuy nodd ci nopp bii la xam ci nopp ustaas yaa ngi nii toog pour indi ci buntu jàkk ji buñ la tëralee comme amee bor lay wax duñu nodd leen duñu la xam leen kon temps bi jot na innahum yarawnahu ba'idan waaw ñu ngi sant lu baax di leen di leen ñaanal bu baax di leen tàyyi ci wax en tout cas ñu kontaan waaye daal li yëg mooy dañoo war a dal xam bu baax li ci indi lan la jërëjëf euh, Mouhamadou lamin Diop euh, wax na message bi jàll na euh, wax jooju nga référé ci suñuy sëriñ boobu sëriñ Abdoulaye Mbacké mu doon wax joom solo joo xam ne daanaka li gën a not ci ay waxam soo ko daay déglu sax noonu la demee. Mm-hmm. ndax daf la koy xëccal ba mu ba mu mel ni immense boo jàkkaarloot. nga xam ne nga koy lam gu daj ko. Mm-hmm. maam nga. alhamdulilah mbokk li nga xam na solo. Mm-hmm. waaye pour wax ni waajur yi. njëriñ yi ci am ci vacances bokk na ci. xale yi ñu leen gën di jege ndax jege googu itam di ci jàng li nga xam ne mooy jikkoy xale yi ndax am na côté boo xam ne man gisewu ma noonu mooy vacance comme xale bi daf daan jàngi bu fekkente ne man nga ko am nga àlluwa ju mën a toppatoo njàngam ba du rëcc xale bi jege la ndax man yar li ma ci gën a gis yow mi wéjur bi nga bari looy saafwante xale bi daf ci am solo ndax xale yu bari na ci koo xam ne doomam jamono bi muy xam ni am na jikko yoo xam ne moom màggale na ko te xamu ko daf fekk daf ko sori lu bari. daf ko jëggaani daf ko jëggaani ndax da ko yóbbu ci école yoo xam ne moom li koy gis at ba at la muy comme am ñoo xam ne bu fa jógee ñu yóbbu ko ci yeneen école ba daanaka bi ko indiwaat ci loxoom fekk na mu majeur mu ëndaale jikko yoo xam ne da daje ñu bëri dañuy jooy loolu di wane ne xale yi jikko yi ñu am wala jikko ji ma ci gis man jaaxal na ma te fekk na jàngale war na ànd ak di ñuy tuddee tarbiya mais tarbiya bi gën am solo ci xale bu nekk ci ron wuy juróom bu ko ci ëpp doole presque bariwul ndax duma yi ci war yow yaa ko mën a def surtout fii jamono tool nga xam ne dañuy tare duma te loolu jaaduwul bokk na ci li gën a yàq xale te dañu la war di duma yonente bi alayhi salaatu salaam wax na ko ci benn xadis boo xam ne bi muy wax ni xale bu amee juróom-ñaari at ngeen di ko digal julli bu daa bu demee ba am fukki at bu ko lànkee def na ngeen ko duma kon duma dafa bokk ci li nga fi tudd léegi ni yar dafa yar yar lay tekki yar yar lay tekki xale xamul yàlla xamul yàlla de loolu bu ko defee jikko yi nekk ci moom di ko gis muy ni muy fawee ki moroomam ak boo ko yónnee muy dem di ñëw di nga ci dem ba xam ci jikkoy xale bi ak li mu bañ li mu bëgg mag ñi daanañ sukkandiku ci loolu sax nga gis xale boo xam ne dañ koy xool ni kii day bu fekkente ne jàngul ko yow yóbbu ko ci métier sàngam ndax dañuy gis ni li tabian bi yaramam ak jëf yi li ëpp ci li mu bëgg boo xoolee xolam daf presque moom lay fowe moo tax kon fo boobu kenn ko tere xale ci jamono bu waree fo te fo mu nekk bañ a nekk fo mu koy gaañ kom li nga tudd léegi ci fam yi nga xam ne xale bi moom la yoroon ci ràbb gi ba bënn bëtam mhm. mu bokk ci loor yi nga xam ne nag dafay feeñ nag surtout ci société bi moom taw waajur yëpp war ko moytu mooy ginnaaw bi ñu amee liberté boobu nga génn ci say responsabilité yaratoo leen xamatoo fu ñu féete ndax loolu dafa bari ci jamono bii li ko yokk nag mooy crise muy li ñu waxoon léegi dafa am crise boo xam ne dafa yaatu boo xam ne di nga mere sax léeg-léeg waajur bi ci dimension boo xam ne boo ko jege woon xam ne def na li mu man waaye fi kàttanam yem boo ko xoolee moom lii def ko ëpp doole ndax loolu buñ koy wax da ngay wàcc ba ci suuf dem ba ci kaw nga xam ne ñoo xam ne booy wax de dañu la naan noo wéyjur yi rek ñoo am responsabilité yu ba gën a bari ma joxe ci misaal moo xam ne sax su da nga ko daan dégg ci télévision yi muy wax ju suufe ju tuuti ñoo xam ne ki koy wax du ko seetlu mais bi ñu fiy sàcc xale yi ndaw yi ci gannaaw nga gis ko ni parents yi ñoom ñoo war di téye seeni doom ma ne léegi kii li muy xam ko ah téye sa doom naka la ko nit mën a defee. Mhm. parentel xale bu mën a dox. am juróom-ñaari doom ba juróom-ñetti doom. sa morom am ko sa morom am ko. nga xëy liggéey ñu ne la sa doom yaa ko war a toppatoo. nga war ko yóbbu kii di jàngi fii kii jàngi fii kii jàngi fële. ñu ne la xale nekk yaa war a téye ba egg a toppaat demaat ba foofa ci école bi jëli ko dem ci école bi ji loolu mënul nekk di nit koo xam ne am nga yeneen responsabilité yeneen occupation yu ëpp doole loolu mooy li ma waxoon kon ci lay dellu si dafa am responsabilité yo xamni ni ci lay déparé ñom ño wara mëna am sécurité buñu tek bu mëna a ci loolu ba caay-caay ku ko bëgg def doo ko def ndax loolu moy objectif li jërëjëf euh, mam Ngor waxtu wi li ci dess bar bariétul euh, Cheikh Diop ma dik ci yow kon won nañ xam ñi nek ñi muy vacances li ci nek ndariñ ak i lorteef hmm. ñee yi ak nan lañu mëna défé ba fankal leen waxtu yi nga xamni ne la Euh, Cheikh hmm. euh, est-ce que fi nga toog ne xam nga ne am na ay groupe yoo xam ne ñu ngi mel ne ay ndeg bent ay njaay àll yu sëkkatal xale yi pour saqami leen ci wàllu ci wàllu yàq seen jikko jamono bi ay kuréel yoo xam ne seen yitte yëpp mooy contre contrecarré bi yarub islam bi fatt ko daf ci am ndàmb tay ko ba du jàll bu yar ba hmm. ñu song gone yi tas seen jikko ñu ngi ci réew mi ñu ngi profité ci vacances bi plage yi kar xale ci plage yi kar lañ ci place yi ñuy dem pour sànni ci ñoom rek benn toqit wala benn nu mu tudd euh, microbe rek buñ bàyyeek moom xale bi di ci liggéey di ci xaatira bu yàqu sax day bett waajur yi hmm. nañu bàyyi xel ñooñu ci société bi te ñi ngi fi Cheikh Tidiane euh, dama gis rek dem ci benn euh, mu tudd sar Ahmad Sarbaas yi moo ko bax mu ne Seydina Omar dafa dem di doxantu ci dëkk bi boobu moo doon amiru na mu dem fekk benn commerçant bu sonn ndeysaan mi marchandise ko wër sax waaye mënu ci dara mu ngi nelaw moom mu taxaw di ko di ko di ko surveiller ci guddi gi noonu bi muy surveiller ci ba trois heures du matin mu dégg benn xale buy jooy yaa janaan ko noppil noppil Omar moo la xañ rek Omar moo la jox li ñu war a li muy joxe ndax nee na du jox mukk lu dul xale bu fer lay jox xale bu feregul dul la jox c'est na Omar waaxu ba ñëw ci ndaw si ne ko ndaxal xale bi mënu ko way man def naa ci lu nekk xanaa yow mënu dem ci ci amaru mu'minin Seydina Omar te xamul ne moom lay wax mu ne ko mu ne ko lan lay jublu ci moom mu ne ko xale yi muy jox ndimbal la ci boole xale yi feregul waaye moom dégg naa gone yu jox Seydina Omar ne ko maa ngi lay baalu xaq man la Omar léegi wax ma bi nga dalee dégg ne ñi ngi joxe léegi ñaata la ma ma jox la ko pour xale bi maanaam xale dafa am aq ci dund am aq ci responsabilité étatique am àq ci responsabilité imam am àq ci ministre wala maanaam ñëpp ñoo war a verser ci pañi xale ku ne war nga tibb sa sunguf wala sa sànqal dimbali xale bi ndax foofu la toll vacances yi ne def ci raw seex sunu réew ñun soxla nañu ëllëg ay xale yoo xam ñoo yor yor réew mi ndax ñooy nekk borom xam-xam li leen koy may ñu gëm loolu la leen xam-xam mooy fittal am réew am po taxul réew dem fenn d'ailleurs dañ koy fàttee am réew gis nga bokk na ci système yi ñuy def mooy fo foloo am réew pour génne image boobu war ne réew maa ngay dox fekk dara doxul. par doxal réew. par <laughs> doxal réew. système lan bu ñuy def gëm loo euh, réew mi ne comme tout va bien parce que tout le monde danse fecc moom daanaka diiru ju bees tàq la. xale bu ndaw am ñoom jàppoo ne dañuy natt ci ne ku bégul dooree. ku bigul doo ree mooy loolu ma la wax. yaa ma a dégg bu fekkee dafa sonn. du mm-hmm. ree du bu lekkut du ree. bu fekkee añu réeru du ree. du ko tal. ñu ne nag buñ bu pom yi bëree. nit ñi fecce dafa tal pecc wala bokk dafa xawul boppam moo tax muy pecc. léegi génn image jone ko au niveau international waral ni réew mi mi ngi dox parce que nit ñi vraiment am nañ lépp ba ñu koy fecc sax ñoom. Mm. fekk ndikki waa ji mu ko waa ji fecc nga gis xale boo xam ne 12 ans am ma ngay naaw ca kaw ni picc ci mpecc kooku nga xam ne ëllëg moo war a nekk chef d'état moo war a nekk député aussi nit dañ koy sàmmal cursus am mooy cursus mooy siiraam wala ñu tuddee biographie sëñ bii li tax ñu ndaw ko bokk na ca ak ndaweem dafa rafet de am na loolu ku ca jaar boo waarate ñu ne la sa waarate dencal ñu ko boo wanee aw joon ñu ne la yow warooy wan wane aw yoon gone yi nañ leen sàmmal seenu ndawee ndax ëllëg seen mag rafet ñun la war ñun ñi waajur yi Cheikh maa ngi répété maa ngi bamtuwaat communes yi département yi préfet yi sous préfet yi ministres députés yi assemblée nationale ba ci président nañu seet nañu organiser ay xew-xew yoo xam dañ ciy invité population invité borom xam-xam yi mu pour vacances rek ñu récupérer sur doom yi jàngal leen technique ci wal informatique jàngal leen alcorane jàngal leen siira yoon ci yàlla Muhammad jàngal leen Ababacar Omar Ousmane jàngal leen manam loolu moy valeur cheikh ki baax moom moo jara roy jërëjëf euh, Imam Cheikh Yaaret euh, ministère de la jeunesse dégg la. dégg la. ndax jàpp naa ne mooy organiser vacances de citoyens. non baax nag. kon moom waroon na dégg li nga wax nii mu xam ne euh, lu ñëpp bokk loxoy ñëpp a cay tàbbi. mu xam ne d' accord ni mu koy gérer jàpp ne baax na am na nu mu ko mënoon a gérer. mu gën a baax ko ci dugalee mu gën a baax. Ah. moom jàpp ne na baax na mën naa gën a baax. kon mel na ni bu fekkee dégg na la dañ bàyyi xel ci liñ mel. Cheikh am lu ma rëcc. Hmm. mooy sëñ bi dafa tudd lu baax mooy baatu yar. cravage. waaw gis nga tubaab bi xam na ni ñun dañu am kilifa. gis nga murid yi déglu ñu ku dul xalifa général. Hmm. tijaan déglu ñu ku dul xalifa général. Hmm. laay ni noonu xaadiri noonu tubaab yi loolu ça le dérange. maanaam am am xalifa général woote dong yëpp ñëw wër ko mu jox benn moo door ñëpp exécuté loolu arrangé wul tubaab. ñaareel bi arrangé lu tubaab xam na ne yar fii mi ngi am gone dañuy ragal ki leen di dóor yar bi kon dañuy am kilifa dañuy topp ci ndigalam bu leen jàngale alxuraan ñu jàngaloo bu leen buñ ko bu leen royloo yoon ci yàlla Muhammad roy ko loolu arrangé wul tubaab moo tax mu xeex tubaab bi def ci pen sax ne képp enseignant bu ñu fekk ngay dóore ñu tëj la xoolal loolu Cheikh nga xam ne ñun waajur ñoo génn waroon génn taxaw ci mbedd mi xeex loolu ne nañu bàyyi suñu doom ñu yaral ñu leen ci école bi ak daara ji hmm. loolu ñu wane ku ku dóor xale ñu jàpp la na dañ ba loi bi dañ. jërëjëf euh, Cheikh Cheikh Imam Cheikh euh, ma ñëw ci tafsir Moussa Gassama tafsir Moussa Gassama. Mhm. ñoo ngi ci vacances. waaw vacances yi am na ay lu ca baax am na lu ca bon. nan la ñuy mën a def ba dàqal suñu doom yi la bon ca vacances yi xëccal leen la ca gën nu ñuy mën a def it ba heure yi nga xam ne heure yi vide la ñu exploité ko mu nekk njariñ yàlla. àdduna moom noonu la ko yàlla bindee. Hmm. bon baax a fi nekk di gëroo. di gëroo waaw. sa wala fi dafa sa wala fi dafa dëgër trop. waaw foofu Saalum la xew. danaay Saalum Saalum nga. gërëm dama faa yàgg. <laughs> baax a baax ñoo fiy jamaare ñoom. Mm, mm, mm. kenn kon ne nag bis dañ bëgg a wat morom ma. dëgg la yow nag yaa am sa fulay bopp rek. gone mi nga xam ne xamul bon xamul baax. góor gi dafay yónni tool doom ya tool ya. bu ngeen fa fekkee euh, euh, euh, golo ya mbaam mbaam ya ngeen daqal ma. te tool yi te tool yi ñu ñëw fekk gaynde gu gaynde gu tëdd xale ba war si kaw gaynde ga ah dañal ba mu neex ko mu wàcc ni ko fekk nañ fu waaye nag dàq nañ ko mu bañ bàyyi ba mu ñëwee ba seen nii seen gaynde ga moom dañuy waxee daw hmm. kon nit ki la muy ragal da koy xam c'est important loo xamul doo ko ragal wallaay dëgg la sa bi tey mille neuf cent soixante-huit hmm. ci jaamal benn xale ànd nag moroom ñu dàq jaar ba mu dugg ci bu pax ñu taal ko di ko xam nga mooy sët 17 waaw ah bu dee ci Kajoor nag xir la. xir ah xir. léegi ñu du ñu xale bi dugal sa loxo mu dugal loxo jaan ji matt ko. ñu ne ko boo ko waxee nga dee. xale bi dafa mujj loxo bi daan néew ba fii. loxo bi daan néew ba ca kaw bay xub. ba léegi nangu wuta wax li ko matt nangu ko bañ ko nee duma nag la ko door a wax. ñu dem ca pax moom dañ koy fekk fa jaan ja. ci koo xam dañ naan bu ñu la matt bu ñu la mattee léegi bu ñu gaawul bu ñu ko lugul mu dee. Nah kon xale bi itam yalla moko protéger mhm. ndax ñak gi mu ñak xam lool mhm. kon yow mi xam li bon xam li bax même xale bu lay jigen bu bëggé jëkër te kam bëgg baxul ya ko nan ki baxul deug la lool motax l'islam may la ni. Mhm. xale bu jigen bi nga xam ni musta am jëkër du ko ko neex mu sey ak moom déedéet. waaw déedéet xam na far est ce xam na far sax. xamu xam far am jox ñoo borom sax lañ xam borom tuba jëla nga lañ xam. yow ya ko nan ki borom tuba nga matul far. ah ah matul aw far. borom tubay ba mënta doon far. déedéet mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko. amul kersa moo tax. yow yaa koy xamal. bu ko defee bu vacance ñëwee. ni nga li la rawoon ci sa doom wax na ko. li rawoon ci njàng. waaw mais duutal jàngalekat. waaw dëgg la. indi ko sa kër. soo ko mënee dëgg la. boo jàngalee ba nopp nga leen dem leen ca mbedd ma football. bu la neex nga def leneen. mënta ñàkk boo ko mënee yow te yow yaa mën a jàngale nga def ko. bu fekkee xale yu dëgër la nga mën leen a jàngal métier. Mhm. métier mu ma di doon bu bënnee baax ba mu des tëbi teen. waaw wóorul métier tëbiteel rek a baaxul. waaw dégg nga nga jàngal leen ko. waaye man léeg-léeg li may naqaru di ko dégg bu baax ñu naan dongay daara nañ leen wutal métier dongay tubaab yi nag duñ leen wutal métier ñoom. ah est-ce que dongay tubaab yi amul métier. ban métier. xëy na la ñuy jàng lañ tuddee métier. jàng mën a calculer nangoo liggéeyee ko de <laughs> waaw Baye Ali Baye Malick Aspi ca ah, ca ca kenn ba. Hmm. nee na ma mën a calculer nangoo liggéey ko gëm ma ne ko ah mu ne ma cinq fois cinq ma ne ko vingt cinq mu ne ma ana vingt cinq. mais da nga koy wuti. boo jàngee ba gàddu say diplôme <laughs> te moom mënoo mel ni dañ yow da nga dégg naan dañ noo joxul liggéey dañ noo joxul liggéey liggéey ñàkkut liggéey ñàkkut de waa ji daa ñëw ci Sëñ Abdou Lahad kër ga dara ne fa mu ne ko toogal ñu xëy jox ko jaasi mu gor sayu géttax teg te gor mu gor sayu laat teg ba am weer Sëñ Abdou Lahad yónnee si ñay ñay ñay ñay ñay ñay sàkket di jaay la loolu xadis ñibbi mu jox ko ko mu ne ko sëñ bi wax dëgg yàlla lépp la samay soxla mu ne ko yaa liggéey yaa liggéey sa ñax <laughs> parce que addis la comme ni ko addis la. waaw addis kër ga néew fa mu jox waaw alex mu ni ko kër ga néew fa mu jox ko. yoonu ñetteel mu ne ko dara mu ko dara mu ne ko dara mu ne ko ah xanaa mbàjj moo xam ne damay lal genn wàll mu ko dama indil ko. mu ne ku ci jënd mbàjj mi benn waay ni ko mën naa ci benn dërëm mu ko tuuti na benn waay ni mën naa ñaari ñaari dërëm yooyu benn mu jëndal ko ca dund di ko yóbbul sa kër mm-hmm. ba ca des mu jënd ca pàcc yéen sal saalum yéen xam nu kajoor pàcc sémmiñ waaw pàcc mooy weñ gii ci sémmiñ waaw yéen ci loxom mu tedd ma ci la wut def ko ca daaj ko ba mu kekk ni ko aca àllub kañ àllub kañ bu nekk ah, misaal waaw misaal la ni ko fekk fekk ñaari semaine bu ma gis fi <laughs> waa ji ba ñaari fan ba ko yéen bi gisee mu ne ko léegi ngi dimbalee jërëjëf eh, Tafsir Moussa Gassama xam yow bañ la joxee jaamal lañ la nga wala <laughs> ngay ngay ah, wax oustaz bi am nu ñu xamee woon noonu waa Sénégal bu doon xamin wu rafet muy nitu teraanga mais teraanga wax lu bon bokku ca teraanga wax lu bon bokku ca te réseaux sociaux yaa ngi bëgg a yàqu mm-hmm, mm-hmm. ay nit daa seeni lamañ leen neex wax ci nit wax yu ñàkk teg loolu du diine mm-hmm. loolu du ngor du jikko ju rafet dee ko lislaam sax na faf tuddee ko loolu ma ci gën xam ne xale yoo xam ne jànguñu dara ci diine di fatwa xam nga jàngoo dara ci lislaam di ubbee yow da ngaa war a dem jàngi yow koo dajee rek li nga wax nangam dafa aram nangam te jàngoo dara da nga mën a jàng. jërëjëf euh, Tafsir Moussa Gassama maam Ngor yan kàddu ngay tàggatoo. li ñu tàggatoo de mooy comme fii suñu baay bu baax bi tëjee rek. muy daasalaam mi ci mbir yi nga xam ne mooy xew. lawatina boo dégloo journaliste yi xam naa dinaa ko tudd tuuti. Mhm. mooy li nga fi tudd léegi. Mhm. bari nañ mbir yoo xam te ñoom it li ñu yàq ci réew mi bari na. Ah, li ñuy wax. boo li ñuy safaane bari na trop xale yi tamit nag wax dëgg yàlla ñàkk nañ tamit ku leen encadré ba mu ëpp rawatina nguur itam seen euh, liggéey ci gone itam des na loolu itam lu ñu war a dénoncé la àdduna bi yëpp xam ko nu lañ leen ci jàppale parce que xale yi xamuñu waaye tamit seen responsabilité yi ñu leen war a taxaw itam dafa des mm-hmm. ndax war nañu boole ci diggante liggéey police ak gendarmerie ak ñii ñu recruté ñi yor sécurité nit ñi ni ñuy def ba ku jaay drogue ñu jàpp la ku fi wax lu dul noonu ñu jàpp la war nañu fexe comportement yeeg yenn doxalin itam ñu boole ko ci liggéeyu police ko def ñu jàpp la loolu nit ñu wér yii ñu nekk ñu génn ci jërëjëf mel na euh, ni seetaan am na ci ah, parce que bari na lu nit di wax ci réseaux ah. sociaux yi ah. euh, bu neexee buur dootoo ko wax imam Cheikh Diop lan ngay wax Cheikh gannaaw gërëm la ak ñaanal la dëgër ak mucc yal nañu ko yàlla bokk defal ñëpp man ñaar laay wax bu njëkk bi mooy euh, politique bii jaru ray sa mbokk jaru saga sa mbokk jaru tekli kok sa mbokk politique bi campagne yek yep rek jaru dóorante jaru kula neex faralal kula neex wotel dañu may nit yi jàmm jarul xeex jarul xuloo ku fi jar ray nit amu fi même salih bi nga xam waliyu la bi nga demé ci jihad ji and ak mom rasulullah bi gay and ak mom jëm yalla tax mais jëm nit ki taxul ku jar dé amul ñaar bi mooy cheikh suñu réew ñoo ko bokk bu ñu dara teqile sëg ibaaru sama tijaan naa ko téye kii na téye ak muritam ñëpp nekk ibaaru du am ñëpp nekk tiijaan du am ñëpp nekk murit du am cheikh loolu nañ ciy wax nañu fexe ba bëgg yoon ci yàlla muhammad an naxyaa fi jiwaar yi bu ñuy faatu faatu ci moom bu ñuy dekk dekk ci moom duggandoog àjjana loolu am solo loolu moom mën naa jeexale jërëjëf euh, Imaam Cheikh Diop wax nga wax ju am solo euh, ñëpp nekk Tijaan manul nekk ñëpp nekk Murid manul nekk ñëpp nekk Ebadu mënul nekk kon nañ yaatal dënn yi jàpp ne oriyatul ixtiyaar ku ne am nga ko ki am sañ-sañ tànn nag ba bàyyil ko ne lim tànn ba mu koy tànn soxlawu ci sa xalaat yooyu la ngay tànn soxla woo ci xalaatam yéen a bokk penc rek bokk leen liggéey ci penc mi jeex na kon bokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tëddee ëttub lislaam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetaleeku ko ni lu ci manqué ci mata di ngeen ñi ko doon def la ñoo ngi leen di ko yëngal <coughs> ñoo ngi dellu gërëm imam maam Ngor Gaye di ko ñaanu yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm imam Cheikh Diop di ko ñaan yàlla tawfiq ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm imam Tafsir Moussa Gassama mm. di ko ñaan yàlla tawfiq di yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla misaani asanaat di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waare si bi di gërëm caméraman yi eh, di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu féetee ci wàllu éclairage liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaam yàlla yi mën ko seetaan ñi nga ñaan yàlla boole ñeeg yow yiw ñu ngi leen di jox rendez-vous ndox daje àjjuma bi di ñëw insha allahu mawlaana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision de l'éducation, la magie de la télé des TV. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout nouveau numéro de votre émission éducative saint 50 L'émission qui se veut et se voit d'être la voix, l'arbre palable des acteurs de l'éducation. Et comme vous le savez, le Sénégal est une destination de formation par excellence. Chaque année, des milliers, milliers d'étudiants venus des quatre coins du monde y sont orientés. La stabilité politique, la teranga sénégalaise et surtout et aussi la qualité de l'enseignement sont entre autres les euh, euh, ce qui explique cette ruée vers les universités sénégalaises. Alors pour faire le point, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une ressortissante euh, du Maroc. Alors euh, Zeynep Alouche elle est la vice-présidente de l'association qui regroupe en son sein les étudiants marocains résidant ici au niveau du pays de la Teranga. Alors Zeina Palouche, bonjour et bienvenue dans Saint Campus. Bonjour Dibi. Vous allez bien Ça va très bien. Ça va, alhamdoulilah. Nagadef. Yangi Vous comprenez le Wolof Tout irek. Naka nga <laughs> Ça va. ça va. Alors Zeina Palouche est aujourd'hui l'invité de l'émission Sainte Campus. Alors nous allons parler de l'intégration euh, de ces Africains ici au niveau euh, de, du Sénégal, bien sûr. Alors mesdames, messieurs, Zeina Palouche, vice-présidente de l'association qui regroupe en son sein les ressortissants ou bien les étudiants marocains résidents ici au Sénégal. Alors Zeina Palouche, est-ce que vous pouvez revenir sur votre intégration Comment ça s'est passé réellement euh, la vérité, euh, depuis la première année qu'on est là, depuis, en tout cas depuis ma première année, on n'a pas trouvé un grand, grand, grand problème pour s'intégrer au Sénégal. Euh, C'était pas très difficile, d'autant plus que entre Africains, on n'avait pas, on n'avait pas. C'était pas C'était pas difficile. Et moi, je lui dis, franchement, les Sénégalais, ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Euh, on n'a pas senti un dépaysagement, peut-être un petit peu au début, parce que vous mhm. sortez... qui euh, Quitter un pays pour venir à un autre, Et du confort, euh, la famille <laughs> vous procure tout ce que vous voulez. La famille vous manque Énormément, <laughs> énormément. Oui, juste venir un peu, nous allons parler un peu euh, du plan éducatif. Alors, euh, personnellement, comment ça s'est passé, euh, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement, le changement un peu de l'enseignement, etc. Comment ça s'est passé réellement On vous a orienté, vous êtes où présentement à la faculté de médecine Département pharmacie. Département pharmacie. je suis en cinquième année, étudiante en cinquième année pharmacie comment ça se passe euh, comment l'enseignement au niveau de la du département de pharmacie ou bien de la faculté de médecine d'une manière générale ben, je pense que ma promotion, on a eu de la chance. Pourquoi Parce qu'on est venu avec le l'instauration du système LMD. Système LMD. Oui, euh, licence, master, doctorat. Euh, c'est un système qui a été débuté en Europe et donc la faculté a repris les mêmes modalités et pédagogies euh, pédagogie euh, du, système, que euh, personnellement je trouve très didactique, en le comparant avec l'ancien système qui était au niveau de la PAC. Donc on se retrouve. Moi je trouve que on est vraiment en avance par rapport. vous avez parlé de. Vous avez, vous avez parlé de comparaison. Mhm. Alors comparer euh, à l'enseignement au niveau de, votre pays, Maroc. Mhm. Alors, euh, comment est-ce que vous, vous qualifiez l'enseignement euh, supérieur au, du Sénégal alors moi personnellement, je n'ai pas fait les deux universités pour juger, mais je peux vous dire que cette année on avait organisé un événement, c'était la première édition Dakar. Mhm. on a reçu des étudiants et des professeurs de l'université Moulay Abdullah à Fès qui je pense, euh, leur avis compte pour nous. les enseignants qui ont enseigné à la faculté sont venus ici et ils ont été genre abasourdis par euh, le, niveau et la qualité de formation ici. Ils ont eu la chance d'aller euh, aux hôpitaux, les étudiants également, et d'assister à des, certains cours théoriques ici. on a organisé des activités entre les, deux pays et je peux vous dire qu'ils ont été très très satisfaits par le niveau ici. qui avait organisé cet événement C'était une collaboration entre l'amicale des étudiants euh, de la, faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie de Dakar et la faculté de, médecine de Fès. C'était entre amis. Donc euh, il y avait les étudiants marocains euh, qui se sont déplacés ici au niveau de l'université Anta de Dakar pour voir un peu euh, comment ça se passe ici. Et, là, et on compte faire une deuxième édition. Ce sont les étudiants sénégalais qui vont se déplacer au Maroc et à l'université de Fès pour voir également à leur niveau comment ça se passe. Et si on, on vous demandait de, faire un bilan de cet événement, comment, comment ça s'est passé bien C'était réussi à 100%. Moi je vais vous dire pourquoi. C'est pas des paroles juste dites comme ça. J'ai eu des retours de la part des étudiants marocains, Donc euh, je suis <laughs> marocaine, ils vont me dire euh, réellement ce qui, euh, de ce qu'il en est. Et ils étaient très satisfaits, que ce soit les professeurs et que ce soit les, étudiants. Parce que déjà, venant ici, les l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, ils ont fait tout leur possible pour bien intégrer déjà ces étudiants. ok Donc ils étaient vraiment euh, comme s'ils étaient au Maroc. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y avait euh, une soirée culturelle où le Maroc était présent. Et ils ont été là aussi pour représenter le Maroc. La soirée, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que niveau intégration, il n'y a rien à dire. Niveau euh, didactique, également en ce qui concerne les compétitions, en ce qui concerne les journées scientifiques qu'on avait fait, il y avait un échange, un échange entre les deux amicales. Excuse-moi, je vais ajouter une chose. On avait fait une table ronde entre les les deux, deux amicales et euh, on avait échangé énormément de choses. Euh, ils nous ont parlé de leur système et on a parlé du nôtre et on a vu les points commun entre euh, les deux facultés et les points de divergence. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose à... Ok, alors Zeyna Palouche, comment ça s'est passé l'orientation, votre orientation Parce que c'était pas facile, si je ne me trompe pas. Quitter un pays pour venir à un autre et puis euh, continuer la formation. Comment ça s'est passé l'orientation d'abord Ok, moi je vais vous dire une chose. Chez nous au Maroc, tout se passe de bouche à oreille. <laughs> C'est-à-dire Quand une personne vous recommande d'aller étudier à, par exemple, à un endroit, les Marocains écoutent ceci avec beaucoup d'attention. Moi, les gens qui m'ont encouragé de, venir ici, ce sont de la famille, donc les gens de la famille qui m'ont dit que vraiment au niveau de l'université, côté plan, côté théorie et pratique, c'est excellent. Donc j'étais pas je, n'ai pas été reçu euh, au Maroc et du coup, euh, la première destination que j'ai en tête, c'est de venir étudier au Sénégal. Et euh, il y a de cela combien d'années vous êtes là Cinq ans. Cinq ans. <laughs> Alors, justement, nous allons un peu. Moi, <laughs> Nous allons parler un peu de... <laughs> Nous allons aborder tout à l'heure la question qui concerne la langue française et également un peu la langue nationale qui est le Wolof. Mais avant cela, euh, vous, vous n'avez pas de problème, de difficulté à, euh, je dirais même, euh, faire des concours ici au Sénégal, ou bien les concours ne sont pas définitivement réservés aux, comment dirais-je, aux étrangers ici au Sénégal Des concours, alors déjà, Bon, les étudiants qui viennent du Maroc, c'est via une coopération entre les deux pays. Euh, pour côté spécialité, c'est-à-dire qu'après les 8 ans en médecine ou les 6 ans en pharmacie, euh, ben, on est euh, l'accessibilité aux spécialités et comment dirais-je il n'y a, a pas de problème pour les étudiants, à part pour quelques-unes où on passe des concours. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu restrictions pour les étrangers ou un truc comme ça. Alors, mesdames, messieurs, Zeynab Alouche, vice-présidente de l'association des étudiants marocains résidant ici au Sénégal, est l'invité aujourd'hui de l'émission euh, Saint Campus, l'émission taillée sur mesure, consacrée exclusivement à l'enseignement supérieur sénégalais. Alors, nous allons marquer une petite pause, histoire de suivre ensemble avec vous, euh, bien sûr, amis euh, téléspectateurs de Saint Campus, la rubrique Actu Campus qui revient sur les actualités qui ont le plus marqué ces derniers jours l'école sénégalaise. Alors, à Actu Campus, mesdames, messieurs qui ont été visités sont des centres dits témoins parce qu'ils sont représentatifs du niveau ou du type, de la typologie des centres d'examen, des établissements du Sénégal. Euh, je disais que nous sommes, entrés par euh, le plus grand centre de l'Académie de Dakar, qui est l'université Amadou Ampateba, qui compte plus de 2000 candidats. Et les conditions d'examen sont vraiment idoines, elles sont bonnes. Nous avons échangé avec le chef de centre et ça se passe très bien. C'est la même chose au centre Martin Luther King, où également le chef de centre également nous a assuré que toutes les conditions sont réunies pour que le bac se déroule correctement. C'est la même chose pour le centre Lamine Les conditions sécuritaires sont assurées à la fois par le ministère de l'Intérieur et la ville de Dakar les questions logistiques également sont bien arrangées, bien réglées. Euh, on a un dispositif huilé parce que les chefs de centre, tout comme les responsables au niveau des différents centres, sont des personnes très rodées dans l'organisation du baccalauréat. Par conséquent, cela augure d'une bonne organisation. 30 au lycée Blaise Gagne. Les premiers élèves commencent à sortir des salles de classe. Ils viennent de terminer les premières épreuves du baccalauréat. Ils faisaient anglais ou arabe, des épreuves jugées abordables. je ne dirais pas difficile. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne nous a pas donné quelque chose qu'on n'a pas vu en classe. Donc nous espérons. Je viens de, de faire mon LV1, mhm. c'est arabe. Ce n'était pas du tout euh, diable, mhm. parce que euh, ce sont les mêmes cours qu'on a fait en classe. C'était c'était abordable Les ça été... c'était abordable. géo est à l'honneur dans l'après-midi, une matière qui stresse plus d'un de par la longueur des leçons. Ainsi, dès la sortie des salles de classe, les élèves revisent une dernière fois leur cours. Vu la difficulté des leçons, les dates en histoire, autre chose, moi je pense que c'est la matière la plus difficile de voir les calculs, les formules tout ça. Si la peur et le stress se lient sur le visage de certains candidats, d'autres par contre sont très confiants. Toutefois, ils espèrent que les autres épreuves seront aussi abordables, surtout avec les nombreuses grèves enregistrées durant l'année scolaire. Euh, un, peu de concentration et vous serez très bien. Nous espérons que ça sera facile vu l'année avec euh, les grèves et autres là. Je pense qu'on va un peu alléger les choses. Oh, pour les prochaines épreuves, bon, on a bien débuté, mais franchement. Donc nous souhaitons que les autres aussi euh, soient comme plus de 150 000 candidats font le bac sur l'ensemble du territoire national. En attendant les délibérations, les élèves, entre stress et optimisme, se penchent sur les différentes épreuves dans l'espoir de décrocher leur ticket vers l'enseignement supérieur. Baccalauréat 2018. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats étaient nombreux. Le lycée Blaise Diagne abrite euh, trois jurys. Les jurys 1205, 1206 et 1207 pour un total de 1124 candidats. Tout a été mis en place pour assurer une sécurité maximale et effacer le scandale de l'année passée. nous avons pris toutes les dispositions pour euh, mettre les jurys dans des conditions acceptables suffisamment de surveillants. Nous avons mis trois surveillants par salle. J'ai appelé le commissaire hier. Ils ont mis huit agents à notre disposition. Et sur la question épineuse des téléphones portables. Il a déjà et ils avaient l'information. Ce n'était qu'un rappel. Euh, on a fait un rappel. Ils savent déjà euh, ce qui les attendait. Demain, les élèves passeront les épreuves de français et de mathématiques. Si pour le moment, toutes les épreuves se déroulent bien, la vigilance reste le maître mot. Le baccalauréat parmi les examens les plus relevés. Fatima Ndiaye et Joséphine Angélique viennent de réussir le bac. À la question de savoir quelles ont été les difficultés de cette épreuve, la réponse est toute simple. J'ai fait euh, le bac technique, le bac G et euh, <laughs> il y avait beaucoup de pression aussi. Quand tu t'envers un objectif, tu es, tu es obligé d'être stressé. Quand tu veux quelque chose, tu es obligé de t'y euh, mettre aussi. Franchement, préparation bi aussi, c'est vraiment difficile parce que matière est brillante, ramon fouga et défolé. Voilà, donc c'est vraiment difficile en fait. Pour qu'on aille et vraiment écrire là, il n'y a pas de problème, mais quand tu penses aux autres, c'est vraiment difficile. Ces deux nouvelles bachelières n'ont pas raté cette occasion qui leur a été offerte pour donner des conseils aux candidats du baccalauréat général qui mardi. Je lui conseille euh, d'être posé et très calme. Un examen, c'est pas pressant. Pour le faire, il faut prendre son temps et faire doucement. Ils ont confiance en eux parce que genre c'est vraiment fini en fait. J'ai un euh, maximum de concentration parce que c'est vraiment fini. Là, euh, il faut juste y aller, foncer et puis voilà. Ouais, d'être calme aussi, ne pas écouter les gens. Genre, je sais pas, euh, oui voilà, les commentaires, les gens, cette personne a fait ça, donc toi tu es obligé de le faire. Non, une def, genre, euh, c'est qui hein, en fait ils seront plus de 157 000 candidats pour cette année. Ces derniers sont invités à respecter les règles édictées, mais également à avoir confiance en eux, à l'instar de ces deux nouvelles bachelières. Je suis heureuse parce que j'ai décroché mon bac alors ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureuse. J'ai rendu mes parents fiers. Puis euh, voilà, c'est tout ce qui importe. Alors, mesdames, messieurs, elle est, la vice-présidente de l'association qui regroupe en son sein les étudiants euh, marocains résidant ici au niveau du Sénégal. Elle est aujourd'hui l'invitée de l'émission euh, Campus, l'émission taillée sur mesure consacrée à l'enseignement euh, supérieur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intégration des étudiants euh, africains ici au niveau du pays de la Teranga et plus précisément à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, la première université publique sénégalaise. Alors, nous, justement, nous allons également marquer encore une fois de plus une pause, histoire de suivre également la rubrique euh, filière du jour. Aujourd'hui, elle s'intéresse au métier euh, d'enseignant. Nous allons suivre la rubrique filière du jour en compagnie de Adjeren Ndiaye. L'école est leur deuxième maison. Ils passent le plus clair de leur temps en compagnie des enfants qui leur ont été confiés par des parents, ce qui pousse ces enseignants à fournir plus d'efforts pour atteindre les objectifs. Vous l'avez vu, déjà on s'est formé avec le, cours et les enfants. Et on donne des cours, c'est notre mission régalienne. Hein. Chaque fois qu'on vient, on essaie de faire le mieux pour pouvoir s'en sortir. Essayer de faire intéresser les élèves au cours. Même s'ils ont fait beaucoup d'années dans ce métier, ces professeurs prennent toujours la peine de préparer les cours avant de venir en classe. On y met tout ce qu'il faut, à, la fois le, contenu, les exercices, tout cela. Arriver en classe maintenant, on fait une approche par compétence. Il faudrait quand même que l'enseignant puisse, avant de venir à l'école même, préparer ses cours nous le faisons d'habitude avant de venir. Moi qui vous parle au juste, c'est apparemment je suis à ma dixième année d'enseignement. Donc euh, c'est un métier que je suis opté et je dois préparer les cours avant de venir. Au travail souvent banalisé par certains, mais ces enseignants indiquent que c'est un métier très complexe. En chaque, euh, chaque enseignant, il y a un savoir qui dort en lui. Dans l'enseignement, on ne peut pas tricher. Pas tricher même si on entre par une autre voie, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on enseigne, déjà on a, on ce qu'on appelle un peu la craie, la craie en main. Ils sont tout le temps confrontés à des problèmes avec les apprenants, mais ces professeurs essaient tant bien que mal de tenir le coup. Le cadre même, parfois nous exige à un peu sécuriser les enfants. Nous savons qu'il y a un métier, parce qu'aujourd'hui, avec les enfants quand même, ils sont, ils sont capables de, tout faire, mais quand même n'empêche, on essaie un peu de jouer un peu au rôle de parents d'élèves. rencontre rencontre n'importe quel type d'élève. Donc, mais l'enseignant, euh, son fort, c'est de pouvoir discerner ceux qui sont capables de comprendre en une seule explication et ceux pour qui il faut passer par plusieurs explications pour les amener à comprendre. Il estime ainsi que l'État doit faire des efforts pour améliorer l'éducation sénégalaise. Il y a un terrain d'entente entre enseignants et État pour que les choses puissent aller mieux quoi sont sont Je dis, nous sommes entre, entre le morceau et, et, l'inclus. Voilà. On est des mais on est juste devenus venir faire notre mission. Mais pour moi, ça que c'est l'État qui doit au moins essayer de parler, de négocier avec les enseignants. L'enseignement est-il un travail enrichissant Ses professeurs répondent par la négation. Du tout. Est-ce que <laughs> vous avez vu un enseignant aussi riche Non, du tout. <laughs> non. Euh, c'est un métier comme les autres métiers. Nous avons un salaire quand même, hein. nous avons un point quand même quelque chose à la fin du mois qui nous permet de vivre. Hein. Mais la place que nous devions occuper hein, hein n'a pas été vraiment, il faut le dire aussi. Toutefois, il conseille aux jeunes d'embrasser ce métier si noble pour participer à l'émergence du pays. Le métier très noble, hein. très noble, puisque à un certain moment quand même, on n'aura plus l'argent. Euh, vraiment pas plus l'argent, juste une mission. Je les encourage. Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc dire qu'il y a toujours la grève, ça, euh, ça n'a rien à voir. Les enseignements sont là et le métier est là, toujours noble médecins, ingénieurs, gouverneurs, présidents, pour ne citer que cela, ont été formés par un enseignant. Mais ce dernier n'est pas souvent valorisé comme il se doit. Ces enseignants invitent l'État à veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Merci à vous, Ndiaye. Alors, retour, mesdames, messieurs, dans un euh, euh, Campus. Et pour rappel, nous sommes en compagnie de Zeina Palouche, vice-présidente de l'association euh, des étudiants marocains au Sénégal. Alors, Zeina Palouche, nous allons parler un peu des questions qui touchent l'Afrique. Alors, vous, vous croyez à une unité africaine Oui, à 100%. Et pourquoi Parce qu'il le faut. <laughs> Parce qu'il le faut. Que, vous savez, moi je suis un peu les actualités monde entier. Et généralement, généralement, euh, j'entends euh, les, les, grands euh, présidents, exemple Poutine, qui disent que si l'Afrique met en sorte ou plutôt met en valeur son, son union et euh, ses, ressources humaines et naturelles, je pense que ce sont les Occidentaux qui vont... Mais est-ce possible, est -ce possible cette, cette union C'est possible si on veut. <laughs> C'est question de volonté, je pense on a vu, euh, puisque nous sommes en, compagnie d'une Marocaine, alors on a vu, il y avait le Maroc qui voulait organiser la Coupe du Monde, ah mais il y avait certains pays d'Afrique qui n'ont pas vraiment euh, participé au, vote. Peut-être ils ont voté contre le Maroc, un pays africain. Euh, vous pensez à, une unité quand même Comment est-ce que d'abord comment est-ce que vous voyez cet, acte C'était un peu choquant au début parce qu'il y avait même des pays arabes qui ont voté contre nous. ça c'est d'un côté, vous, comment dirais-je, on revient à la réalité, on, se réveille <laughs> de, comment dirais-je, du rêve où on était, c'est-à-dire qu'un pays arabe, va te soutenir à 100% juste parce qu'il est arabe, ou bien un pays africain, il va te soutenir juste parce que c'est africain. Mais après, je pense que c'est question de politique aussi, je pense, mais. Euh, en tout cas, on est très fiers du Sénégal qui a voté pour nous. On est très très <laughs> fiers de ce pays. Alors, l'IPI, euh, justement, nous allons parler un peu de football. Mhm. Les pays africains euh, euh, comment dire, l'Afrique était représentée à la Coupe du Monde par le Sénégal, Maroc, Égypte, Tunisie, euh, Nigeria. Mais toutes ces équipes ont été éliminées dès ah, le premier tour. Vous, en tant qu'Africaine, comment est-ce que cela vous fait Bon, moi je parlais des prestations du Sénégal et du Maroc. Ils, se sont battus sur le terrain. Ah, franchement, moi je vous dis. Vous avez vu le match Maroc-Espagne ah on a marqué deux buts contre une grande équipe. C'est, c'est ça, c'est, c'est, excellent. Donc juste ça, c'est, un succès parce qu'avant on ne, on ne pensait même pas arriver à ce niveau de jeu. Et après, moi je dis que l'Afrique <clears throat> ne s'est pas vraiment éliminée. Vous savez pourquoi <laughs> Pourquoi, Parce que la France ah. <laughs> est constituée par des, euh, des gens d'origine africaine. On a Rami qui est marocain, on a euh, Paul Pogba, on a mais beaucoup de personnes euh, qui sont <laughs> de l'Afrique. Alors justement, donc on a gagné la Coupe du Monde. Donc félicitations <laughs> à la France. Félicitations. Euh, justement, avant de terminer, euh, comment est-ce que vous voyez la démocratie au Sénégal euh, ou bien en Afrique D'abord, parce qu'on a vu des, dirigeants africains qui font tout leur possible pour rester au pouvoir. Alors si vous voulez mon avis, je votre trouve avis, votre appréciation, le bien problème des, je pense, des gouverneurs africains, c'est qu'ils n'exploitent pas les ressources humaines. Moi, je vous dis une chose. L'exemple, le, peut-être le plus illustratif, c'est que quand, par exemple, un pays occidental regarde que, juste sur le plan football, mhm. qu'un, par exemple, un joueur marocain, euh, en tout cas un joueur africain, a du potentiel, ils le prennent en charge. Mhm. Ils, font en sorte que ce dernier brille, même si c'est pas, même si peut-être il n'est pas de, leur pays. Mais nous, en Afrique, on fait pas ça. C'est ça le problème. On fait pas ça. Alors, euh, Zina Palouche, nous en arrivons à la fin de cette émission. Euh, euh, qu'est-ce que vous, en tant que Marocaine, Africaine, vous proposez euh, aux États africains pour un peu développer leur éducation euh, paralysée, pratiquement euh, paralysée par des grèves répétitives. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'Africaine, bien sûr Tout d'abord, c'est de prendre en compte, il faut, il faut prendre en compte les gens sur le terrain. Parce que peut-être ces, diplomates et politiciens ne sont pas réellement sur le terrain. Peut-être qu'on leur apporte juste les faits. Il faut par exemple, il y a un problème sur le plan éducation. Moi je vous le dis, même chez nous au Maroc, il y a ce petit problème. Mais il faut prendre l'avis des spécialistes, des, professeurs universitaires, des, maîtres d'école, des, même des étudiants. Il faut écouter quels sont les réels besoins. Parce que c'est vrai que l'éducation est en chute libre chez nous en Afrique. Et c'est un problème. Parce que moi je trouve que c'est, comment dirais-je, c'est comme il y a un train et c'est le, moteur de ce train, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Parce que certains pays, euh, malheureusement, on prend toujours l'exemple euh, des pays européens et américains, ils sont développés. Pourquoi Parce qu'ils ont l'éducation, parce qu'ils investissent beaucoup sur l'éducation. Ils, changent de programme, de stratégie pour avoir... Euh, parce que le futur, il est entre, entre les mains des jeunes. C'est-à-dire, on doit investir en ce qui, en ce qui concerne les jeunes, pas euh, les, immeubles et euh, je ne sais pas quoi, mais sur les ressources humaines. Il faut investir dans ce sens. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Alors, et pour... Euh, vous, aimez le malheur Oui. Ah. Oui, le attends. je connais les, noms, mais... allez, <laughs> On, on, va, on va aller sur du yusundur Ouais. Alors, mon Djekna. Mungafetch, Mon C'est quoi Faites, danser. ah oui euh, je danse un peu le. vous avez dansé. ouais. ah bala mm, oui. Euh. <laughs> mais je vais pas danser aujourd'hui. Ah. <laughs> alors euh, vous dites Coco à qui? bah mes parents. tout d'abord parce qu'ils me manquent énormément. à ma soeur et mon frère qui sont au Maroc maintenant, ils sont en vacances. Il à a tous tout, mes amis au Maroc et au Sénégal. Alors, mesdames, messieurs, Zeina Palouche est-il aujourd'hui de l'émission euh, Saint-Campus. et l'émission euh, qui se veut se voir d'être la voix l'arpapalab des acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, nous, euh, on était avec vraiment Zeyna Palouche pour parler un peu de l'intégration des étudiants africains ici au niveau du Sénégal, plus précisément à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, nous remercions la communauté marocaine et également l'ensemble des Africains résidents ici au niveau du pays de la Teranga. Alors, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette émission. Alors, euh, rendez-vous dans 15 jours pour notre numéro de Scène Campus. Mais avant de vous quitter, je tenais à remercier l'ensemble euh, de l'équipe euh, technique qui m'a accompagné durant cette émission. Alors, rendez-vous, mesdames, messieurs, dans 15 jours pour notre numéro de Scène Campus. Mais d'ici là, restez branchés, côté jamais déconnectés sur la télé de l'éducation, la magie de la télé des TV. Au revoir. Medina Baye ca Yoff Layeen mosquée omarienne di lii di ina jot na ci àjjuma ji xabaar yi asalaamaaleykum bopp xibaar yi gën caa fës bokk na ci lu soxol wàllum tabaski googee nga xam nag daanaka léegi tey ñu jëm jëm euh, lu jëm ca xar yiñ ci yittewoo daañu gis ne daal lu toll ci juróom-ñaari junni ak juróom fukk euh, ci lii nga xam nag moo soxal xar ya daañu ñëw fii ci xew mi lu ci lim bu ëpp euh, ñeenti téeméer ak juróom fukk ci junni ñu jagleel ko capital bu Ndakaaru Sénégal di Ndakaaru ka joxle xabaar bi du kenn ku dul Seydi géey mi nga xam nag moom mooy rek kàddu gouvernement bi ci ndaje bi ñu doon amal démb ca Diamniadio lu soxal li jëm ci njàng mekk njàngale mi bokk na ci nag euh, lii di baccalauréat bi résultat yi la ñu gis mooy am na ay jéego ko ko xamle mooy office du bac ñoom gis ne daal buñ ko méngaleeg at yi wees gis nañ ci yokkate gu ama am solo noonu la ko xamle ci jotaay ak taskati xibaar jàpp ne téeméer bu jël daanaka fanweer ak juróom yu tof as lëf am nañ ko ci bac général bi ñeent fukk ak juróom-ñeent ci lii nga xam nag moo di bac technique bi ci kanam lay doon ci xibaar yi leneen bokk na ci lu soxal euh, wàllum 2019 Ngouda Fall Kane euh, ma nga woon nag ca dëkk bu sell ba Touba Mbacké si xaay jigo ngir nag euh, jàkkaarloo wala bokk seeti xalifa bii di Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, la mu xam ne nag mooy daanaka am na programme waaye am na lu mu ŋàññi ñi nga xam nag ñoom ñoo di nguur geek yenn ci ay doxalin Euh, ci wàllum technologie ak it science gëstu googee dafa nekk loo am solo kenn mënul suqali am réew te soobuñ ko ci moo waral waa IGE nag ci xaajiku dëgmali woon te Mbuur amal fa ab ndaje boo xamante ni lépp weccante aliwo ci wàllu woowee jàpp ne mën nañoo suqali Sénégal ci ci sukkandiku ci xarale yi yeneen ci ponk ci kanam ñu faram fàcce ko ahlan wa sahlan daleen ak jàmm ci at xibaar yi digg njolal aljuma ji tey ji euh, niñ ko waxee ci bopp bi ci tabaski atum 2018 ki bokk na ci euh, limub xar ya ñuy soxlawoo di daanaka sept mille euh, moutons maanaam juróom-ñaari junni ak juróom fukk ci ay xar yoo xamante ni war nañ ko ittewoo ñu gis ne fii ci nag ndakaaru lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay junni daan leen koy jaglele ci daanaka ay xar ka joxe xabaar bi du kenn ku dul ki yore kàddu ko mm, gouvernement bi ci démb nag bi ñuy am ndaje moo xam ne ñu ngi ko seq ak ci ay jëwrin ci teewab seen njiit di Elimanti di euh, Mouhamadou Boun Abdallah Dionne waaye tam ci teewab sunu ndaw Djibisaat Dioni. xar dina am bu baax a baax ci tabaski atum 2018 loolee ki ñu dénk kàddu gouvernement bi moom moo ko xamle di dalal xel yi Seydou Guèye mu ngi fësal ne njëgu xar yi dina dal te boo moyut ku nekk di nga ci mën a jot. xar dina am njëg dinañ ko mën a àttan 750 000 moutons Dakar ou Kessé, région de Dakar, soxla le 260 000 mais nous nous, sur suñu tanks, qui ni ñu ko defee woon daaw soxla woon lu ci 750 000 yàlla dimbali a nañu ba plus de 913 000 ngir amal nak feet bu mucc ayib nañu doxale won at biñu genn mom lañu la ñu bëgg amalaat gornamang bi sax mu ngi xamle ne taxaw na temm ngir daal di sam kat yi boole ceeg jooyo xom ci li nga xamanteni ni mom moy jëlé xar yi ngir indi len ci réew mi suko défé askan wi yépp ku nekk mën ci aji sa bop ku melni ministère des affaires étrangères it dina am lo xam war na ko dugg bi ci digënté ñi nga xamni moy ñi nekk Mauritanie wala Mali ngeen xamni ministre de l'élevage dem na fa ay yoon waxtaan ak ñoom ci ñi nga xam ne dañuy yar njur nak la ñuy ñëwee fii mën a dugg si mais demul woon pour jënd xar indi ndaje mi le nag dal di dajale woon ñu bëri ñu yëngatu ci wàllu càmm gi nekkoon na itam ab prox ndoll ci premier ministre ngir mu jébbal lu toll ci nag benn ci milliard ci sunu ay koppar ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy sàmmkat yi lor woon bu yàggul dara koppar gi yépp nag ñu joxe ko daal di nañ ko séddale ci juróom-ñetti région yi nga xamante ni ñoom lu mbir mi soxal am solo jombul jibi saar yooyu di wut ngam xar waajal lu ni mel euh, ci ndaje moomee nga xam nag yélimaane jëriñ ji moo fa nekkoon démbit benn ndaje boo xam ne seen kilifa di président Macky Sall moo ko jiitee euh, di concours général bi nga xam nag ña nga doon bu ndongo ye gën a euh, kawe alligo seenu xarañteef rawatina ci wàllum xam-xam di scientifique ka ko jël nag di jaari saw fekk baax ca diwaanu Mbour waaye doon jàngi ca lycée bu scientifique ba nekk ca Diourbel dañuy ànd ak Mouhamadou Diallo démb teewoon na ko bi yëpp jug di tàccu ngir kañ ki gën a ràññeeku si xayma bu ñu doon xayma ndongo si Sénégal yëpp mu ngi tudd Diary sew nekk si classe S1 si lycée d'excellence scientifique bu Diourbel moo jël raw gàddu bi si xayma bi ñu doon xayma ndongo yi si doxalin bu rafet si réew mi ak i tamit ak at yelleefu doomu aadama moo jël yi tamit ñaareelu raaya bi si matière xarale yi di science de la vie et de la terre. Euh, maa ngi contraint trop euh, parce que ci année bi dañoo liggéey bu metti pour euh, yegg fii ñu yegg moo tax damay ndamoo suñu suñu victoire la mais on doit savoir que aussi du du kii du du ndam en en en soi-même parce que li ñu xaar bëri na. téeméer ak juróom-ñeent raaya yu ñu jox téeméer ak benn ndongo ñoom ñu ngi ràññeeku bu baax si fuko ak juróom-ñaari fànn. pour ñi nekk ci classe première waaye tamit ci fukk juróom pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe terminale yi mu mel nii ñi gën a ràññeeku ci wàllum njàng si Sénégal ñoom lañ fiy sargal ba pare jiital si bu baax xarale yu yees la transformation digitale. jumtukaayu harala yu bees yi. fu mu toll nii jamono dox na ba kenn mënu ko bàyyi tax ma jàpp ne madame Bax lu wax sax dafa am solo. nguur gi mu ngi taxaw pour fexe ba ndongo yi fu ñu mën ci Sénégal ñu xool nan nañ leen mën a dimbalee bañ mën a jot ci xarala yu bees yi. loolu lu gën a mën a ñoŋal seen la. waaye dina jaar tamit ñu jox leen si jumtukaay siy loolu nañ ci taxaw te si projet yi la bokk. d'une culture numérique. màggal ak a kañ xaranteef si wàllum njàng ci Sénégal bokk na si ràññee bu baax ak kañ ñi nga xam ne bokk neen si ñi si def ay jéego yu am solo looloo waral sax ba ñu tànn kenn si ñoom di professeur Iba Der Thiam ngir bàyyale ko bés bi professeur votre parcours professeur Iba Der Thiam sa jaar-jaar nekk jàngalekat ci daara dëgg doom yi ba université rawatina tamit li nga def ci àddina ak wàllum njàngale sa jaar-jaar bi dañ ko war a kañ te lu ñu war a fësal la looloo tax sax ma xalaat la sargale ordre national du lion